ci masjidu Abdullah ibn Mubarak ngir tesewaat ak kenn ci suñu boroom xam-xam yi ngir ñu jàngat li nga xam ne moom yitteel ci suñu wàllu diine te ki nga xam ne moom lañ war a teseel mooy cheikhuna al ustaaz docteur Mohammad Ahmad Lo xafizahu llahu taala mu war a jàngat ak ñun thème bu am solo bu boo xam ne jullit ñëpp war nañ koo bàyyi xel di ko jàngat fu mu toll ndax ni ñu leen yitteele ak ni ko lislaam subhanahu wa ni ko lislaam fonke ak ni ko yàlla subhanahu wa taala digle ci alquran yonente bi alayhi salaatu wasalaam digle ko ci sunna muy tëraliinu lislaam ci koom-koom ak yokkute lislaam yenn tëraliin la am ci koom-koom ak yokkute loolu mooy li nga xam ne moom lañ fas yéene jàngat moom lañ war a yéene déglu Euh, cheikh naa cheikh Mouhamed Ahmed Lo jàngatal ñu ko incha allah ci bisub tey bii. ci tàmbaliwaayu waxtaan bi tam ñu ngi sant bu baax a baax association MED nga xam ne ñoom ci sponsor yu am solo yi nga xam ne ñoo jàppale euh, kër gi ak jàkka ji di masjid Abdullah Mubarak ban amal waxtaan wi ci leen bokk ñu ngi leen di sant bu baax baax ci seen taxawaayu rafet. di ñaan tam mboole mbokk jullit yi ñu jàppalanteeg ñoom dimbalanteeg ñoom ci loo xam ne lu yitteel ñu ngi fàttale te mbokk yi ne am na ay mbokk yoo xam ne ñu ngi ci bunt yi ñoo xam ne lii seen liggéey mooy képp koo xam ne bëgg ngaa bokk ci iftar saa yi ni amal fii ci jàkka ji muy dogal way woor yi te am loo ci bëgg a e, participer def ko ci yàlla tax boo leen ko joxee incha allah dana egsi ci kër gi ñu def ko fii ay ndogu yoo xam ne jullit yi ñoo koy e, xewlu te xam ngeen la ci nekk ci tuyaaba kon du ma jël lu bari ci waxtu wi dañuy bàyyi ak cheikhuna cheikh Mouhamed Ahmad la wax xafisahullahu taala mu dugg ak ñun ci waxtaan wi. Euh, ñu ngi fàttalee tam ne waxtaan wi mi ngi dana dana day passé direct incha allah ci rajo Leeral FM 104 point 6 muy rajo boobu nga xam ne mooy rajo bu bees bi ci nekk ci Louga euh, yàlla na leen yàlla subhanahu wa taala dëgëral képp koo xam ne man nga koo déglu foofu itam incha allah da nga ko mën a jàpp.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 te mu nangul ñu ko barkeel ko ful ko tey nag dañuy waxtaane tomb boo xam ne mooy manhajul islaam fi tanmiyati l mooy tëraliinu lislaam ci wàllu sakkanal koom-koom sakkanal nag buñ ko waxee waxuñu mooy nga denc ko waaye mooy nga jëfandikoo ci noo xam ne dana yokku dana sakkan buñ ne sakkan na ma yokk na tomb yi nga xam ne moom lañ ci fas yéene waxtaanee jërul ma ciy jaar léegi waaye buñ ci toll rek danaa ne tomb sàngam ci lañ toll ba waxtaan wi jeex insha allah kon introduction bi la jiital mi muqaddima bi ñu xam ne lislaam dafay diine joo xam ne dafa ñëw jóge ci sunu borom tabaraka wa jëm ci àdduna bépp nag maanaam jëmul ci aw askan rek wala aw xeet walla arab wala ñenn waaye dafa jóg jëm si ci ñépp jëm si it fépp war fee nekkit ba faaw kon diine boo xam ne dafa boole aalamiya ak shumuliya dafa matale lépp ba noppi war a àgg fépp ba noppi war fee nekk ba faaw ba noppi làmboo lépp loo xam ne dafay defar doomu aadama ci wàllu pas-pasam ci wàllu jikkoom ci wàllu dundiinam muy li ñuy wax ba ci politique sax ba ci économie amut lenn loo xam ne l'islam daf koo bàyyi loolu moo tax mu nekk diine joo xam ne dafa boole adduna ak alaxira wala li ñu tudde aqida wa sharia pas-pas ak tëraliinu dund fii ci àdduna loolu la boole képp ku jóg di gëstu ci bunt yooyu yi ma tudd léegi muy pas-pas wala jikko wala wàllu social wala wàllu politique wala wàllu économie dana fekk ci ay texte ci alquranul karim ak ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loo xam ne bépp problème bu am ci yooyu ma tudd rek solution ba dana ko fekk foofu dana fa fekk sax tëraliin yoo xam ne boo ci jaaree mën nga mucc ci problème ci la ngay dund moo xam daa jëm ci wàllu social wala daa jëm ci wàllu politique wala dafa jëm ci wàllu économie ñu xam ne kon kii gëstu ci économie islamique wala ci développement économie islamique ki koy gëstu nekkul di koo xam ne dafa jóg di jéem a tëral am ngir mu bees maanaam tax koo jóg wala pas-pas bu bees wala tëraliin yu bees wala régime bu bees waaye daa jóg di jéem a trouver di seet l'islam naka la tëre moom fii su dikkee day fekk tëriir woowu nekk ci biir alquran nekk ci sunna nekk ci doxaliinu asalafu saaleh moo tax ci gëstu ci wàllu développement économique muy at tanmiya al iqtisadiya euh, duunal koom-koom kiy jóg di gëstu ca loola ñaari xam-xam daa war a daje ci moom yooyu nag léeg-léeg mm, jafe-jafe dafa xaw a am tuuti ci li ñuy tudde finance islamique tey ñi koy jàng ak di ko jàngale moo tax banque yi dañuy faral di am gag yu bare bare bari ci loolu moo di ñaari jàngin yooyu dañoo war am benn bi mooy jàng économie ci boppam ba xam num num tëree nuñ ko tëralee ci suñ jamono yi tey jii ni muy doxe ba noppi wëlbati ko jàng sharia al islaami yi ci boppam aw tëraliinam ci wàllu fiq bunt ba ca aju ci wàllu alal na ko lislaam organisé nga xam ko ñaar yooyu su àndee ci ngay mën a génne li ñu tudde finance islamique boo xam ne bu tegu ci yoon li ñuy dund rek lu ci gën bari moo di ñoo xam ne dañoo jàng économie ci jàng yéenu ni ko doom aadama yi tërale rek classique bi nga xam ne moo am ci banque yi moo am feneen jàng ko ba àggal walbatiku dikk di liggéey ci benn banque boo xam ne banque islamique lay doon wala nga bëgg a ubbi fenêtre islamique ci sa banque fekk xamuloo tëraliinu lislaam ci wàllu finance kooku nekk jafe-jafe am keneen koo xam ne it dafa jàng fiq bi ba xam ne lislaam lii mooy ay atteem lii dagan na lii daganut waaye ngir mu mën koo tuxal ci wax yi ni ñi nga xam ne ñiy dund économie classique bi noona la ñuy déggee mu mën koo tuxal ba mu ñëw ci ñoom loola itam langage boobu xaw a jafe ci ñoom su ko defee loolu li muy jur mooy wenn xur muy fajwa boo xam ne dafa dox diggante ñii ak ñii euh, te xasda li ñu dund nun gis nañ ne fekk ki jàng fiq nga defal ko formation yu gàtt ba mën a comprendre finance ni muy doxee ci kaw suuf tey moo gën a yomb fekk koo xam ne dafa jàng finance classique ba àggal nga bëgg koo jàngal l'islam ni mu jàngalee fiq waaye daal lay résultat ba daal mooy ñooñu moom ngir économie islamique mën a dellusiwaat faaw ñu ànd dimbalante ñoom maanaam ki nga xam ne dafa jàng xam-xam bu xóot bële ci wàllu économie ak ki nga xam ne dafa jàng xam-xam bu xóot bële ci wàllu fiq ci buntub lu aju ci alal xaasatan ci bunt boobu kon ki nga xam ne dafa jóg di gëstu ci bunt bi ma ne mënta ñàkk ñaari anam yooyu yëpp benn bu ne mu am ci ay formation yoo xam ne dana ci tàggatu ba xam nan la lislaam xoole économie ci ay tëraliinam lan mooy méthodologie bi nga xam ne ci lay jaar ak itam ñi nga xam ne économie képp lañ jàng itam nga xóot ci wet googu ba xam alal nu mu tey ak nan lay doxee ci banque yi jëflante doomu aadama yi yu mel noonu ndax dox yi ni yu bare bare bari yu am tey yu bees la yoo xam ne bokkul woon ak yi am bu njëkk te ngir nit ki mën koo àtte faaw xam ban gis-gis la ci lislaam am kon ñaari jàngiin la yoo xam ne benn mënu cee wuutu moroom bi faawu nit ki xam lépp ku ne xam na ne lislaam dafa ñëw doon diine ju yaatal ju détaillé ci lépp loo xam ne dafa aju ci wàllu pas-pas wala mu aju ci wàllu jaamu yàlla yi wala mu aju ci wàllu jikko yi loola da caa yaatal lool détaillé ko ci nam gën a sewe am ay bunt yoo xam ne daf koo gàttal joxe li nga xam ne mooy principe yi muy mabadi yi li ci des mu delloo ko ulil am boo dikkoon ci domaine bu mel ne politique lu mel ne économie lu mel ne administration ni ko nit ñi di tërale seen na ngay tëri say bureau say nangam ak koy organiser yoon yi nit ñi daw table tableau yi ñu koy tableau nii rek yi ci bare bari yooyu l'islam dugg ci da leen jox rek ay grandes lignes yoo xam ne xutuut arida muy ay lignes yoo xam ne rek dane lii baax na fexe leen ba mu tasaaroo lii baaxul fexe leen ba mu gën a ba mu jóg fi su ko defee nag loola day dellu ci ñi ñuy tuddee ulul amr yu bari ci détails yu jëm ci wàllu alal tey wala mu jëm ci politique wala mu jëm ci yenn yi l'islam daf koy delloo wulil amri ulul amr nag buñ ko waxee mooy ñan mooy njiiti adduna yi maanaam comme ay umara waaye njiiti xam-xam yi muy ay ulama boroom xam-xam yi ak njiit yi yàlla teg ci kanam nit ñi ñooñu ñooy àndandoo tër tëriin woo xam ne dafay dëppoog na ko lislaam bëggee ngir euh, mbir mi tegu ci yoon kon foofu danañ aajowoo xam mustalaxu tanmiye ci boppam muy tomb ñaareel bi euh, développement mooy lan euh, baatu développement wala tanmiya ak tanmiya al iqtisaadiya boo ko dee jàngat ci téere yu yàgg yi bind ci lislaam lu gën a bari euh, tur woowu doo ko gis ak tanmiya donte baatu tanmiya mi ngi ci kàllaam ak arab bu ne nam ma yu nam mi tanmiyatan mooy fekk na loo xam ne dafa manqué woon mu yokk ko ba mu jëm kanam loolu lay firi lu dellu woon gannaaw nga yokk ko ba mu jëm kanam loolu moom dañuy wax tanmiya waaye nag baat yiñ daan jëfandikoo ci téere fiq yi ci lislaam baatu tanmiya boobe tasaaroowu ca lool ñu ko comme ab terminologie boo xam ne day firi développement comme ni mu koy firee tey euh, waaye am na yeneen baat yuñ doon jëfandikoo yu toog palaasam bokk na ci baatu al imaara muy dundal bokk na ci baatu tamkiin mooy jàpp ndalal mbir yi ba mu mën a tax ba mën a stable mën a jëm kanam bokk na ci baatu tasmir wala istismar nga xam ne meññal dara fekk loo xam ne meññul woon nga meññal ko wala nga jàppandi ca nga jàpp ca ba meññ baat yooyu moom rot na ci am na ci yoo xam ne ñëw na ci alquran sax am na ci ñëw ci xadisu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mu gën a fés nag ci mbind yi nga xam ne boroom xam-xam yi moom lañ bind importance su développement ci wàllu économie maanaam jëmale kanam góorgóorlu ba alal nga duunal ko sakkanal ko ba mu yokk solo si mu am ci lislaam lislaam dafa bàyyi xel liggéey ak jëmale kanam alal ak jëmale kanam dundiinu doomu aadama eh, ba tax mu dugal ko ci loo xam ne dafay mel ni lu nekk lu war sax moo tax boroom xam-xami tafsir yi li sunu boroom tabaraka wa taala wax ne huwa anshaakum min al ardi wastamarakum fiha moo leen bind fii ci suuf si indi leen fi wastamarakum fiha mooy mu sàkku ci yéen ngeen dundal suuf soosu dundal imaam bu mag bu ñu wax al jassaas nee na inna fi dalika dalalatan ala wujubi imarati al ard biziraati walgarsi wal abniya nee na aaya boobu dafay wone ne war na war na ñu dundal suuf si ci mbay ak ay garab yu ñu fiy saxal yu ñu fiy jëmbat ak ay tabax yu ñu fiy taxawal tabax nag buñ ko waxee tabax yi nit ñuy dëkk ngi ci yoon ya ñuy jaar a ngi ci leneen a ngi ci leneen a ngi ci usine yaag lépp a ngi dugg foofu kon moom gis na ne loolu dafa war kon nag loolu lu mat a bàyyi xel la ci ne lislaam euh, wàllu développement ci boppam ci économie doonut loo xam ne lu simple la lu am solo la danañ ci ñëw ci kanam tuuti mu am nag rakaisu tanmiya muy développement dafa am ay piliers yum tege maanaam dafa am daal ay ay ay poto yoo xam ne ci seen kaw la teg yooyu bi ci jëkk ñaar la ñaari e, jën walla ñaari photo ñoo am yoo xam ne bu doon lislaam xoolinam ci wàllu alal dafa doon loo xam ne dafa mel ne ab ab néeg bi ñuy yanu wala bâtiment wala yu mel noonu ñaari piliers yooyu mooy yi ëpp solo ci yoo xam ne ci wàllu économie foofa la ko lislaam saafaraa bi ci jëkk mooy murtakazu al aqidati al islaamia benn bi dafa jëm ci wàllu pas-pas defar doomu aadama ji ci pas-pas ndax pas-pasu doomu aadama ji moom mooy conduire nit ki mu jub wala mu ñàkk a jub mu bëgg lu baax wala mu ñàkk bëgg lu baax kon tabax pastéefam ba mu nekk doomu aadama joo xam ne boroom pas-pas la ju xam ak yàlla di ko jaamu moom dong xam xaq yonentam sallallahu alayhi wa sallam di ko roy moom dong xam àq ji diini ji am alquran ak texte yi nga xam ne mooy texte sharia daraja ji nga xam ne moom lañ am ak tolluwaay biñ am mu teg leen fa leen war a teg foofu ci la nit ki déparé pour mën a amal développement waaye ki nga xam ne pas-pasam baaxul kooku mënta développer am réew contraire ba kay mooy day delloo gannaaw am réew ndax boo xooloon société yi nga xam ne ci wàllu pas dañoo dellu gannaaw lu gën a bari dañuy dellu gannaaw ci économie daanaka bañ a gëm dara sax ñoo leen di tane boo leen xoolee ñu gëmul dara nga xam ne gëmuñu ay pas-pas yu yàqoog dara amuñu xarxam foofu amuñu ay jaxas amuñu lenn waaye continuer rek dem liggéey noonu doon ay doomu aadama ñooñu ñooy gën a amuk jàppandal ci dund àdduna gi ci ñoo xam ne dañ ne jullit lañ ba pare seen pas-pas baaxul ko waral mooy alal ji lu bare bari day yàqu wala ñu bare bari sax faf duñ liggéey te fekk boo ko gëstoo ba ci biir pas yu bari yu yàqu boo ko waral danañ ñëw ci détails yu gën a yaatu kon nit ci boppam ngir mu xam responsabilité am ci dund gi ñu nekk faaw mu jox wàllu pas-pas cër bi nga xam ne moom la am moo tax borom bi tabaraka wa dafa digal nit ñi ci alquran ne famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi moo leen digal ne dox leen ci kaw suuf te lekk ci wërsëg bi maanaam kooku li muy firi famshu jooju benn mu làmboo dox leen dox goo xam ne doxu jëf la wala famshu dox leen ñu xasaf waamalu waaye kon dox gi moom résultat ba rek mooy wa kulu min rizqihi yéen daal dem leen fàggu ji lu ngeen lekk dem leen fàggu ji lu ngeen lekk mooy dem leen liggéey kon jullit bi bi mu jógee di fàggu lu yóbbu ca këram ab gis-gisam weesu na ne day fàggu alal kese rek yu yóbbu waaye gis-gisam àgg na ci ne moom mii moom mii dafa nekk ci jaamu yàlla kon loolu wàllu pas-pas moo koy moo koy indi ci nit dafa gëm ne day dox ngir dundal suuf si ci boppam te suuf si bu dundee moom dana ci jariñu ñeneen ñi nekk ci kaw suuf itam danañ ci jëriñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax lu koy leeral lool nee na ida qaamat saaca wa fi yadi axadikum fasila fastataaca an la yaquuma xata yagrisaha falyagrisha fa inna lahu bidalika ajra nee na soo demoon ba nekk ci sa tool di jëmbat ay garab yëkkati benn garab ba koy bëgg a samp ñu ne la ah saakata ngi taxaw maanaam yowmal a ngi taxaw nee na yow continuer rek nga jëmbat ndax loolu nga def am nga ci ab yool loolu nga def am nga ci ab yool ndax daf laa fekk ngay def loo xam ne lu baax la te it loolu dalay jàngal ne yow mi nga xam ne yaa nekk ci tool bi di liggéey wala ngay jëmbat wala nga xëy di liggéeye loo xam ne lu dagan la même résultat bi nga ci doon séentu bu amut jàppal ne am nga tuyaaba lu tax parce que damaa xëyoon ci loo xam ne yàlla moo ne ma woon xëyal foofa ma nekk ca loola di ci nekk su résultat ba ñëwee alhamdulilah boole naa ñaari koom-koom mooy yool ba ak la ma ci doon wut ci alal am naa ko ca su alal dikkut itam yool kon fam suuf yi bi manakibiha ndigalu sunu borom tabaraka wa taala moo ne dem leen liggéey bi nga demee liggéey am nga ca la nga ci doon wut alhamdulilah ñaari yiw dajana moo tax yéene jooju faaw mu sell nga gëm ne bi nga ci nekkee nekkoo ci wutuk alalu kese waaye dangaa nekk ci wut tuyaaba war cee amaale itam alal ndax yaa ngi koy jaar ci yoon woo xam ne ku ci jaar amaale ko ci kon tomb bu jëkk boobu muy murtakasu aqida pas-pas bi faaw mu wér te yéene ji ci lay baaxee baax alal jóg di liggéey moo xam ne liggéey lu mu mën a doon tam nekk lu dagan mu gëm ne ci jaamu yàlla la nekk dana seetlu ne li muy def lu dagan la ñaareel bi dana ko jox lim yeyoo ñetteel bi dana gëm ne am na ab yool te loolu yéene ji wér la joo xam ne li fekk déparé wut ak moom li muy def mën naa ñàkk sol lool ndax àdduna kese rek lay doon bu boobaa kon nit ki war naa bàyyi xel ne jamono yi muy liggéey wutul alal kese waaye day wutaale tuyaaba ndax day def lu ko yàlla sant ñaareel bi ci rakaaisu tanmiya mooy inmaau l iradati aljamaaciyati lil mujtamaci al muslim defar defar nit ñi ci boppam valeur yi nga xam ne xiyam yi nga xam ne moom la lislaam am jullit bi am ko muy lu aju ci wàllu social doon lu aju ci wàllu jikko ngir développement mën a mat faaw yooyu yépp dañuy ànd ñu développé leen ñoom itam jikko ya day développé day développé wu pas-pas ba day développé wu dund gi muy dund ak doomu aadama yi yéene yim leen yéene yu baax iraada ci boppam muy pas-pasam ak pasteefam bi nga xam ne moom la jublu yooyu yépp day doon loo lu baax ko tax a loolu nag ngir mu mën a am ci nit ki faaw mu développé ay ay bunt bi ci jëkk mooy at taqwa wal istiqaama faaw mu defar ko nag ba jaar ci siraatul mustaqim ndax ñooñu muy ragal sunu borom tabaraka wa taala ak njub daa doon ponk yoo xam ne su amee rek xewal mën naa tuuru waaye su amul nag jafe-jafe mën naa am ci jullit moo tax borom bi tabaraka wa taala mu ne walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw la fataxna alayhim barakatin min alsamaai wal ard nit ñi ci dëkk yi bu fekkoon ne gëm nañ ni ñu war a gëme yàlla parce su ñëw na ragal nañ sunu borom tabaraka wa di def ndigal yi di bàyyi tere yi nee na kon la fatax naa kon day nu ubbi alayhim muy wàcc ci ñoom barakaatin ay barke min asamaai wal ard yi tukkee ci kaw asamaan si ak yoo xam ne ci suuf si lay balle kon balance boobu muy misaanu taqwa mooy jaar-jaar bi nga xam ne bu ci nit ki jaaree sunu ko defal xarit ci moom moo bi tabaraka wa waxaat ne walaw anna wa an law istaqaamu ala tariqati la asqaynaahum maan gadaqa su fekkoon ne am nañ listiqaama jaar ci yoonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon fu ma toll damay wàcce ci seen kaw ndox ndox moo xam ne ndoxum jàmm lay doon moo xam ne bu dikkee xéewal lay doon ak koom-koom kon tomb boobu ci yar iraada bi muy jubluwaayu nit ki ñu defar ko ba mu tegu ci siraatul mustaqim kooku mooy tomb bi ci jiitu ñaareel bi moo di lislaam dafay defar nit ki di ko soññi ci mu xarañe li muy def mu man ko compétence li ñu tuddee compétence mu am ko ci la muy def ginnaaw yar na ko ba léegi nit ku jub la lu muy def la ne dana ko teg ci yoon waaye nag li muy def na doon lu mu man nag pour ne ragal naa yàlla rek man kon lu nekk war naa ko mën a def maanaam du noona li nga jàngul mënoo ko loolu bu ci dugg parce que boo ci duggee yàq ko moo tax l'islam bëggul kuy ger bëggul kuy kuy kuy dugg ci lenn loo xam ne loo mënut la wala ngay nax nit ñi wala yu mel noonu moo tax dafay yar nit ki ci mu xereñe liggéey bi moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci xadis bu wér inna allaha yuxibu ida amila ahadukum amalan an yutqinah yàlla dafa bëgg kenn ci yéen bu dee liggéey la muy def mu xarañe ko na ko man bu dee lu ñuy jàngi na dem jàngi ba man ko bu dee lu ñuy def formation na dem defi formation ba man ko door a dugg ci di ko jëfandikoo waaye bul tëb rek ne cëpp xëy xëy ne man ab maçon laa te fekk doonoo ko wala nga xëy xëy ne ministre laa te fekk doonoo ko wala nga xëy xëy ne damay réparer nangam ñu jox la appareil yi nga yàq ko te fekk loolu sab liggéey loolu lislaam nanguwu ko dafa bëgg nga boole ñaari mbir jàngal sab liggéey ba xarañe ko ba nga xam ne yow li ngay def moom kenn dàqatu la ko man nga ko nga wëlbati ko nag doon ko jub la nga cee def lépp doon lu tegu siraatul mustaqim bul nax kenn bul lekk alali jàmbur bul yàq yëfi jàmbur bul rocci dara ay pièces si jàmbur yi nekk ci ay appareil di ko jaay keneen wala nga koy dugal ci beneen appareil yooyu yëpp njub njub moo mën a tax ñu di def kenn ku ne la ngay def ay xeeti ay seytaane la jàpp ndalal na la ci xeeti dëng-dëng yoo xam ne su fekkee ragal yàlla googu ak njub gi nekku fi mën ngaa dëkk ci di yàq ak di lekk loo xam ne lu dëganu la te doomu aadama yi moom duñ ko xam waaye nag day bàyyi xel ne boroomam mi ngi koy xam ci dem ba gëm ne def lu ne boroomam mu ngi koy xam wëlbatiku li muy def mu xarañe ko man ko bu wér nit ku mel noonu mooy koo xam ne société bu gëm bu mu gën a bari société ba day gën a jëm kanam kooku nag ngir mu xereñe ko dafay aaja nag jàng jàng def formation jàng nangoo muñ nangoo teeylu parce que jàngit nag mënut a gaaw te it dafa metti nekk sa patron mu lay gëdd di la xas defal nii defal nangam yooyu yëpp danga koy muñ xam ne dafa am looy visé ci kanam da am benn jubluwaay benn objectif boo xam ne ci nga bëgg a àgg te ku bëgg àgg ci lu mel noonu ah da ngay da fi ñuy wax ne ku bëgg lem da ngay muñ ay yamb maanaam ki jëm ci lu baax am na lu nekk ci diggante bi loo xam ne lu metti lay doon lu saf lay doon kooku kaw nga nangu koo muñ jaadu na it dundal ci biir nit ñi ñu am yëg-yëgu ne yow mi jóg di liggéey demoo rek ngir fàgguloo yóbbu sa kër waaye dangay tabax am réew da ngay ci tabax am réew loolu lañu ñu tuddee almuwaatama civisme bi nga xam ne moo waral a tasaaroo ci doomu aadama yi bañ gëm ne réew mi tabax ko du responsabilité ab état kese du responsabilité patron yi nga xam ne ñoo am xaalis kese du responsabilité waaye ñépp ci war a participer kenn ku ne la nga man nga di ko def jamono yi nga koy def dañoo bëgg nga yëg ne yow mii da ngay tabax réew mii réew mi nga nekk ci ngay participer ndax yaa ngi def loo xam ne soo ko deful woon keneen ngir mu def ko dana sonn ci loolu ñépp mënuñoo àndandoo def ko kon ku ne dafa am loo man ki nga xam ne mooy muwal nga xam ne loolu dong mooy liggéeyam ci tabax bi architecte bi boo demee nga xam ne moo teg plan bi boo demee moom mënta muul boo ko joxoon ciment beeg yëfit rek ne ko kaay muul boo demee mënu kon mënoo ñàkk noonu nga mënta ñàkke da nga yëg ne kon tabax bi ni nga ci tëlee ñàkke ki doon rëdd plan yi ni mu ci tëlee ñàkkee ki doon di teg di taqale muy dem nam ca tëlee ñàkkee ki doon raax nam ca tëlee ñàkkee ki doon peinture nam ca tëlee ñàkkee ba kero muy sotti da gëm ne tabax réew mi ci boppam noona nga ci mel li nga jàng ba xarañe ko man ko ak lu mu tuuti tuuti ci say bët bul jàpp lu tuuti la lu mën mënta ñàkk la kon dañoo bëgg nga am yëg-yëgu ne yow mii nekkoo fi rek di koo xam ne da xëy am ñaari dërëm wala ñetti dërëm yóbbu yoo yóbbu ci sa kër ngir lekk ko kese loolu moom itti ju tuuti la yoo xam ne xar yeeg béy yeeg yu mel noonu yooyu ci lañuy xëy waaye sa itte yow dafay yëkkati dafay féete kaw loola mooy lan mooy damaa war a tabax am réew moo xam ne lii may def participation la ci tabax ko kon ruuxul muwaatana day daal di dund ci yow mooy yëg-yëgu ne yow da bokk ci mbooloo bokk ci am réew moo xam ne dañ koy tabax yow itam nga war a bokk ci ñi koy tabax noonu nga gëmee ne ab yool nga cay wut da ngay gëmit ne da tabax am réew ñetteel ba moo di responsabilité état nag am na foofu moom itam mooy encourager ñi nga xam ne dañoo xarala ñi xarala ba mën a sos dara hmm, ñu di leen tudde ay innovateur nga xam ne mën nañoo sos dara ñooñu dañ leen a war a encourager leen dimbali leen jàppale leen ndax ñooñu kat ci ñi tabax réew ci lañ bokk ndax su fekkoon ne ñii jekki ba mu yàgg ñi créer dara dañ leen a sàggane noonu kon jumtuwaay yi fii doomu aadama àgg tey kon duñ fi àgg te dem nañ ba problème yu bari tey indil nañ ko ay solution te doomu aadama yooyu di xarañe di sos ñoom ñoo ko mën boo toogee fu tàng wantiloo yaa ngi upp bu sa kàddu jotewut fa li nga wut lu koy jottali jumtuwaay yi tey yaatu na lool xarale gi yaatu na lool waaye loolu lépp ay doomu aadama doo nga ko def yoo xam ne xel yi ñu yor ak xel mi nga yor benn la waaye nag ñooñu dañoo laaj soññi leen jàppale leen dimbali leen kooku responsabilité état la beneen bi ci des te état am fa responsabilité moo di aar aar réew mi li ñuy jéem kër kër yi di ko liggéeyal seen bopp moo xam ci mbay la moo xam ci industrie la moo xam lu mën a doon aar ko ba fexe ba loolu ku góor góorlu ba liggéey dara ba génne ko ñu am foo ko jaaye ame ca dara suñ ko aarut nag xam ngeen ne réew yu mag yi tey ci àdduna seen itte mooy réew yu ndaw yi duñ jëm kanam lu tax duñ jëm kanam mooy suñ jëmee kanam bu dee mbay mën nañoo bay ba am am ci lu leen doy bu dee industrie mën nañ koo jëfandikoo ba am ca lu leen doy bu dee seen jant yooyee nga xam ne moom lañ am te nun ca tugal amuñu ko fexe nañ ba exploité ko di jëfandikoo énergie solaire kon léegi nun li nuy liggéey duutuñu am marché buñ ko jaay kon ñoom daal nañ fexe ba nag leen rek ñu bóof ñu di leen foloo di leen caaxaanloo ñuy cëppi-cëppi su ko defee noonu lun am mën ko yóbbu foofa jaayi ko loolu mooy mooy mooy mbir mi su ko defee nag laaj na li ñuy liggéey lu mu tuuti tuuti ñi góor góor góorlu ca fexe ba jëmale ko kanam xam ngeen senegal Sénégal bokk na ci réew yi nga xam ne ci wel xeetu xarala buñ leen boofalul woon sëf leen loo xam ne nañ ko ba duñ jóg kon ba te ñoom demoon nañ bu yàgg sun maam yi fi nekkoon téeméeri at ci gannaaw doon nañ defar lépp loo xam ne luñ soxla woon ci seen ci seeni jumtuwaay amul lenn luñ doon jëggaani fenn te lépp lañu amoon na xeeti jumtuwaay yee ñuy bayeeg jumtuwaay yee ñuy def ci seeni fas ak yeñ cay takk ak dem nañ ba àgg ci defar ay fetal yoo xam ne da koy taal muy tàkk seen guerre yooyu nga dégg ñu di ko wax yépp fetal yi ñu ci daan yoon ñu di ko tuddee ay maq dóom ñoo ko daan defar kon ñoom demoon nañ ba xarañe ba lenn lu nekk am nañ ci xeeti ngànnaay ak xeeti jumtukaay kër ak xeeti jumtukaay àll ak ay waruwaay ak lenn lu nekk demoon nañ ba di ko defar mais dem ba jëmmi jamono yooyu kenn aaralu leen ko kenn soññu leen ci ñu gën caa jëm kanam waaye ñu dem indi yeneen yoo xam ne ca tubaab la jóge mu ñëw wuutu yooyu ñooñu lañ doon def ñu daal koy teg fële boo wax ñu ne ah loolu solo bopp tëgg la tëgg rek moo ko defar te bopp tubaab a ngi nii su ko defee bopp tubaab ba daal leen di gënal bu tëgg ba nga daal koy su ko defee woowa xeet daal di bóof la muy féete woo kay mooy naa wuti xaalis rek ngir mën koo jënde la ko lay jóge bitim réew kaaraange googu ngir am réew mën a jëm kanam faw ñi soññ ñi ci biir réew mi ñu mën a defar ñoom itam léegi dem nañ ba jamono joo xam ne lépp xam-xam bi tasaaroo na mathématique bi nit ñi xam nañ lenn lu nekk xam nañ ko sénégalais yi jàng nañ ba xaraña lu nekk li ci des mooy taxawal ay usine tabaxal taxawal ay entreprise yoo xam ne dañuy liggéey comme ni àdduna bépp di liggéeye di produire comme ni àdduna bépp di produire loolu ci la am réew di jëme kanam ñu ñëw muy principe yi nga xam ne nag moom la lislaam teg méthode am tëraliinu lislaam ci euh, économie maanaam développement économique bi ci jëkk moo di almaalu maalullah borom bi tabaraka wa lim lim jëkk jàngale mooy alal sunu borom moo ko moom alal yi ci kaw suuf yàllaa ko moom walillahi mulku samawati wal ardi wa ma baynahuma yàlla nee na la ca asamaan la ci suuf ak li ci seen diggante lépp maa ko moom kon kat yow nekk da fàggu ñi nax na la lii yaa ko moom waaye nekk kat lépp yàllaa ko moom borom bi tabaraka wa taala nee na wa anfiq wa anfiqu mimma jaalakum mustaxlafiina fii nangu leen a dépensé ci li nga xam ne yàlla da leen cee wuutal da koo dénk dénk dana daal loolu foofu daal mën nga fee nekkandi ma teg loolu ci sa loxo waaye dee ci joxe noonu kat la dund àdduna gi demee li nga dem ba defe ne yaa ko moom luñ la dénk la ndax sa dund dafa gàtt te alal ji moom fi la ne kër gi nga tabax tool bi nga moom ak oto yeeg alal yi nga moom yépp bis bi ne woon bakkan bi rot na tey moomeel gi day daal di toxu fi saasi rek jóge na ci woowa tur moom dem ca weneen montar bi nga takkoon sax du taxaw day continuer di dox waaye keneen lay doxal nag ku dul yow kon mustaxlafiina fii borom bi tabaraka wa taala dana toogal foofu rek ba ci kanam waaye nag defal ma ci lii borom bi tabaraka wa taala waxaat ne wa aatuuhum min maali llahi alladi aataakum ñi nga xam ne dañoo ñàkk jox leen leen ci alal yàlla ji mu leen jox jox leen leen ci alal yàlla ji mu leen jox loola lim lay jàngal moo di alal ci kaw suuf sunu borom tabaraka wa taala moo ko moom kenn ku ne nag dana am lum la dénk ndax lim la dénk ci ngay mën di lekk ci ngay mën di naan ci ngay mën di sol ci ngay man di dëkk waaye nag ci ngay mën a defe itam lu baax kon dénkaan loolu lu mat a bàyyi xel la waaye principe bu ne alal yàllaa ko moom it lu mat a bàyyi xel la dafa am nag lu muy firi li muy firi mooy yàllaa ko moom waaye mën na koo teg ci sa loxo su boobaa ci biir doomu aadama yi yow yaa moom loolu ndax ba geesul déggee dégg ni ñu ne alal yàllaa ko moom nga ne kon fu ma ko fekk rek sañ na maa di jël déedéet non non maanaam mustaxla fii na fii dafa am istixlaaf daa am kuñ ko teg ci loxoom dafa am kuñ ko teg ci loxoom koo xam ne moom lañ ko dénk kooku moo ko yore même liñ la dénk te moomoo ko ab jaamur sañ te ñëw di ko jël kon déggiin woowu la ñaareel ba mooy alxassu ala alkasbi alxalaal wa ala imarati teg développement économique moo di soññee ci dem fàggu loo xam ne lu lew la dem sàkku ji alal ju lew soññee ci dundal adduna ak alaxira moo tax borom bi tabaraka wa taala ne wabtaxi fi ma aataaka allahu daar al axirata wala tansa nasibaka min addunya wa axsin kama axsana allahu ilayk wala tabgi alfasaada fi l ardi inna allaha la yuxibu almufsidin sun borom tabaraka wa taala nee na li la yàlla jox li la yàlla jox sàkku ci àllaaxira waaye bul fàtte sëb cër ci àdduna bul fàtte sëb cër ci àdduna na nga rafetal nag ni yàlla rafetale jëme ci yow te bul doon ko yàq ci suuf si bul yàq yàlla kat bëggul ko yàq aaya boobu loolu lay wa axsin kama axsana ilayka borom bi tabaraka wa jox na la milliard sa def lu baax na toll ci la nga am jox na la cent sa def lu baax na toll ci la nga man kon wa ahsin kama ahsana allahu ilayka bu fekkee ci buntub alal la mooy joxeel na la yàlla joxe te sax na ci xadis ne borom bi tabaraka wa taala wax na ne ya ibna aadama anfiq unfiq aleyk li yaa ngi joxe ma di la jox li yaa ngi joxe ma di la jox bis bu nekk sax na ci saxiixul buxaari ne ñaari malaayika dañuy xëy di ñaan menn mi day xëy ba ngoon lii dikkaram ak jaamu yàlla am mooy yàlla na ngay jox kiy joxe yàlla na ngay jox kiy joxe loolu mooy ak tudd yàlla moom vingt-quatre heures sur vingt-quatre meneen malaayika mi lay jaamu yàlla am mooy bu xëyee vingt-quatre heures sur vingt-quatre mooy yàlla yàlla na xañ kiy xañe yàlla yàlla na xañ kiy xañe yàlla yàlla te ñaanug malaaka sunu borom kon ndeke bokk na ci bunti wuti koom-koom yi mooy joxe ci sabilillah boo joxee borom bi tabaraka wa lay jox ay xisos am na foofu yu bare bare bare yoo xam ne lii ma lay wax nii nit ay nit essayé nañ ko ci seen seenug dund seenug dund te seeni pas-pas wér ak seen ngëm ñi yor lenn képp yor ci itte loo xam ne ëpp na loolu fukki yoon ñu xëy xëy lañ yoroon ñu joxe ko fi sabilillahi borom bi tabaraka wa taala wóotalal leen ci saa si loo xam ne moo gën lañ joxe wala mu faj seeni soxla ci anam gam ko soobu mu faje ko noonu borom bi tabaraka wa taala nee na huwa alladi ja'ala lakum al arda dhalula famshu fi manakibiha bëgg nga bàyyi xel adduna ak alaxira ñaar yépp bul départ mukk rek dugg ci biir mbooloo mi rek ne fàtte naa lu jëmoon ci alaxira léegi adduna rek moo fi des moo tax même bi nee wa famshu fi manakibiha dox leen ci kaw suuf si wa kulu min rizqihi daf ne wa a nushur bul fàtte ne da ngay dellu ci sa borom tabaraka wa taala principe boobu moom nga àndal comme ni mu wax ne wabtaxi fi ma ataaka llahu dar wala tansa nasibaka min ad-dunya ñaari béjjén yi dañoo war a ànd mooy adduna bi ak àllaaxira bi foo toll fu nekk alal ji bàyyil xel ne da ngay dellu ci sa borom tabaraka wa taala moo tax borom bi ne fa ida qudiyat as-salatu fantashiru ardi wabtaxu min fadlillahi wadkuru llaha kathiran la'allakum tuflixun boo xoolee aaya boobu dafa boole àdduna ak alaxira lépp ba mu jeex ci julli nga jóge fa ida qudiyat salaatu bu jullik àjjuma gi jeexee fantashiru fil ard dem leen nag ngeen tasaaroo ci suuf si wabtaxu min fadlillahi ngeen sàkku ngëneelul sun borom tabaraka wa taala ngeen sàkku alal ngeen sàkku wërsëg bu jógee ci sun borom tabaraka wa taala waaye nag wadkuru llaha kathiran la'allakum tuflihun yaa nga ca biir bitig ba yaa nga ca magasin ba yaa nga ca bureau ba bul fàtte tudd yàlla foo toll fu ne saw làmmiñ bu dañ mukk di tooy xepp ci tudd sa borom tabaraka wa taala kon adduna ji foofa nekke fu mu mën a doon yàlla bu mu sori xol bi bu mu sori làmmiñ bi loolu lañ bëgg nga boole ko yow jullit bi borom bi waxaat ne fa ida faraxta fansab wa ila rabbika farxab fa ida faraxta demal liggéey yi te nangu ci asoon wa ila rabbika farxab waaye na fekk sa xemmemteef bu mag sa objectif ba gën a sori objectif ba gën a sori mooy ngërëmul sa boroom na nekk sa xemmemteef ba gën a mage wa ila rabbika farxab boroom bi tabaraka wa taala neen falyabudu rabba hada albayt alladi atamahum min juin wa amanahum min xawf yàlla moo leen may sécurité moo leen jox ngir lu ngeen lekk mu ne kon saxoo leen jaamu seen borom tabaraka wa taala tomb boobu boo fi xoolee dangay gis ne lislaam dafay soññ nit ci ci mu dem liggéeyi mu soññ ko mu defar àddunaam waaye jamono yi muy defar àdduna ji mum bàyyi mukk bàyyi xel boroomam lu muy def lu nekk na xool la ci yàlla bëgg mu defe ko noona lam ca bëggul mu bàyyi ko loolu mooy mooy tomb boobu nga xam ne mooy ñaareelu principe bi nga xam ne lislaam foofu la teg wàllu développement économique <coughs> ñetteel bi moo di rabtu taxsil al maal bi ixyaa janib takaaful al jamaai wut alal lislaam daf ko takkale daf ko boole ak dimbali ñi nga xam ne ñooy société bi ñooy mbooloo mi tomb la boo xam ne junj naa ko sànq ne woon danaa ci delsi lislaam dafa jàpp sax ne nit ki am ay alal di dund di dem di dem ñi àndandoo di dund fale fekk am na ci ay kuréel wala ay doom aadama yu nekk ci seen biir moo xam ay jirim lañ moo xam ay ñu ñàkk la ñi di leen romb ñi sonn ñu bàyyi leen noonu kenn jàppalewu leen rek borom bi tabaraka wa taala boole na ko ci melokaani ñi nga xam ne dañoo weddi diine faf boole na ko ci melokaani ñi nga xam ne dañoo weddi diine mooy ñàkk geesu keneen nekk ci sa bopp rek ak sa borom bi nee na araayta alladi yukadibu bi diin fi mu tàmbale mooy ñi nga xam dañoo weddi diine alladi fa dalika alladi yadaau alyatim mooy ki nga xam ne day romb ab jirim bu sonn bu tëdd ñàkk amul lu mu lekk mu romb ko dem yoon te am na lu mu ko dimbee wala yaxudu ala taamil miskin te du soññi kenn ne ko demal dimbali ci miskin yi xanaa wax dëgg yàlla boo amul dara it war ngaa mën a soññee ne nit ki dimbali leen kii gis nga ku tane kenn nga ne ko keekat sonn na yow defe naa ne war nga caa man dara jàppale ko loolu boo ko defee sax sa jaan wàcc na yow am nga ca tuyaaba kon benn ki nga xam ne dafa sonn am nga loo ko dimbalee dimbalee ko dimbalee ko loolu soo amul loo ko dimbalee nga def la nga man su fekkee am nga lenn loo ko mën a defal bu dul alal sax nga defal ko lool nee nañ waaja dafa romb nit ki muy kof kofi ca naaj wa dafa fekk muy kof kofi ca ker ga te fekk sedd bi metti loolu muy jooy mu ne ko looy jooy mu ne ko xanaa xiif ak liw xiif ak liw mu góof ko jële ko ci ker ga yóbbu ko ba ca naaj wa ne ko lii moom dana la mën a fegal liw bi xiif bi nag yoruma lu ma la jox waaye boo boo yàggee fi tuuti léegi liw bi dem dëgg la mënu ko fajal ñaar yëpp waaye am na pexem jéem koo fajal benn bi kon loolu moo war a doon sa taxawaay ci biir société bi ki nga gis mu tële dara te mën nga ci dara jàppale ko ca lu tuuti tuuti mënoo ca dara gis nga keneen ku ci mën dara nga ne fa diw sàngam mee ma gis day aajana dimbali lu ci waay man sooy ba nga def ko boo koy def nag nga def ko defin ci jamono lañ nekk joo xam ne boo dee dimbali keneen jaare ko ci anam goo xam ne anam gu sell la anam guy dindi tuuma la ndax ci jamono lañ nekk joo xam ne léeg-léeg nga gis sa dëkkandoo ñëw di sàkku ci moom dimmal loo yóbbu ca moom am lum la jox seytaane man la ëpp doole fekk nga coppati leen la jox wala nga suñu coppati ko jëmale ci sa sa bopp loola soo ko bëggee wattandiku booy jóg di dem àndal ak keneen wala ñeneen ñoo xam ne da ngeen di ñëw ne noon kat di wanu tax a jóg tey mbiram nangam ak nangam ak nangam nii la demee su ngeen ko dajaleelee dara yéen ñëpp ngeen bokk xam li ngeen ko dajaleel su ngeen koy yóbbu yéen ñëpp di ngeen bokk yóbbu ko ci waaye kenn nit yonente bi sallallahu alayhi wa na seytaane da koy jekku bu doonee ñaar nee na foofa la seytaane di gën a néewe doole bu doonee mboolee nag seytaane moom perte kon loolu lu mu ta bàyyi xel la borom bi tabaraka wa taala artu na bu baax tëkku sax ñi nga xam ne dañuy am alal denc ko bañ koo joxe kon at takaafulul ijtimaa'i wala at takaafulul jamaa'i dimbalante ci biir askanul islaam dafa war a dund moo tax borom bi nee na walladina yaknizuuna dahaba walfiddata wala yunfiquunaha fi sabilillahi fa bashirhum bi adabin alim ñi nga xam ne dañuy am seen alal rek ngir denc nee na ñooñu sooy ba nga yëgal leen ne mbugal ma mettee ngi leen di xaar mbugal ma ëllëg nee na alal jañ amoon dañ koy tàngal ba mu tàng mel ni aw feer te xam nga ne euh, feer wu ñuy tàngale ci sawara jahannama bokkul ak feer wu ñuy tàngal ci sawara su àdduna si ne bu noppee dañ koy paase ci xar kanam ba ci jéba di ko jaarale ci gannaaw ba boole ko di leen naqaral ci ay wax ne leen lii mooy li ngeen dencoon kon nag mos leen ko mooy li ngeen dencoon kon nag mos leen ko kon alal jam dencoon noona lañ koy soppee mu doon ay weñ ñu tàngal ko ba mu xonq ñi di ko jaarale ci yaramam di ko ci yàlla na yàlla musal ci loolu moo tax alal di su ko alal des koy génne mu circuler nga def ci fi sabilillah dundale ci liggéey ci mu jëm kanam joxe ci su ko defee mu bañ a taxaw ci xadisu abi hurayra radiallahu taala anhu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee man ixtakara xukratan yuridu an yughdiya biha ala almuslimina fa huwa xaati nee na képp koo xam ne denc nga dara bi nga koy denc li nga ci bëgg mooy na cher ba ma mën koo génne jaay ko dama koy denc mu cher ba ma mën koo génne jaay ko waaye nee fekk nit ñi ajo woon nañ ko te amuñu ko ci marché bi nee na kooka mi ngi def bàkkaar bu mag mi ngi def bàkkaar bu mag kon li ñu tuddee ixtikaar muy rënk alal ñaari xeet la am benn bi dagan na bi ci des daganut ànd ne même bi dagan sax gënut bi dagan mooy ban mooy ki yor alalam lu muy jaay maanaam dangaa am sab ceeb di ko jaay ne dama koy denc ndax am na waxtu woo xam ne bu jotee ca lay gën a cher naa ko denc ba waxtu woowu moo xam wala gerte wala lu mën a doon nga am na waxtu sàngam ca lay ëpp prix woo ma jaay ko waaye fekk loolu nga loolu nga denc manqué wul ci marché bi nit ñi ko soxla ñëpp ñu ngi koy am su boobaa wala neex nga denc sa alal kenn loruwu ci ginnaaw daa am waxtu woo xam ci lay gën a baax péri te yow mën nga koo xaar xaar ko yoonu kenn newu ci waaye bii xaraam mooy boo xam ne nit ñi soxla nañ ko ci marché bi di ko wër gisuñu ko nga am ko ba noppi denc ko nag lu tax mooy xam naa ne fan yii ni ñàkkee dana gën a cher su ko defee lu gën a metti rek ci la sama bénéfice di gën a ba gën a baax loolu defe naa jaaykat yi xam nañ ko hmm? boobu mooy bi xaraam moo tax nit ki ak takaafulul ijtimaai muy solidarité bi nekk ci diggante jullit yi amul benn taxawaay boo xam ne danañ fa taxaw benn situation boo xam ne dañ ko war a fàtte foo toll fu ne nit ñi am nañ àq ci yow boo xam ne danga ko war a bàyyi xel Omar ibn Xataab radiallahu taala anhu ci benn xadis boo xam ne xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la daf ne man ixtakara wal iflaas nee na li jullit yi aajowoo war koo lekk ki ko dem denc ko bañ koo génne sunu borom tabaraka wa taala dana ko nattu benn ci ay feebar yu metti yoo xam bu ñëwee duutu ko tal maanaam lam amoon day dem fajoo ji ko wala alalam jékki-jékki jeex ne turaas mu naan alal jëfum jaar fekk dafa dem yoon nee ñaar yooyu moom du ci mën a mucc ah loolu de ku ko dégg kon war ko bàyyi xel loolu mooy ñetteelu principe bi ñeenteel bi moo di xeex ñàkk l'islam dafa am principe bu mu jël boo xam ne moom itam da koo tër ngir xeexe ko ñàkk teg nag plan boo xam ne bu xóot la moom l'islam ci ni ñuy xeexe ñàkk ba mu jóge ci aw askan xeex ñàkk gépp nag ci l'islam da koo teg ci ñaari ponk ñaari ponk ni ñuy xeexe ñàkk ci ñaari kese bi ci jëkk mooy al amal liggéey kooku moom mooy ponk bu mag bi liggéey mooy lan mooy bépp effort boo xam ne doomu aadama ji mi ngi koy boo xam ne doomu aadama ji mi ngi koy def moo xam effortu xel la wala mu nekk bu yaram te fekk am na njariñ njariñ loo xam ne lu baax la sharia a na baax na <coughs> ngir ngir loolu mu man cee faj aajoom faj ci aajooy askanam loola la ñuy tuddi liggéey ci lislaam bépp effort booy def moo xam xel la moo xam yaram la moo xam ba façon liggéey bu mu mën a doon waaye daal liggéey bi daal am na njariñ te sharia nee njariñ loolu yi njariñ lu baax la nga di ko jëfee ngir man cee am sa sutura wala lu lay jariñ ak luy jariñ saw askan lislaam nee na loolu mooy liggéey lu du lool nag du liggéey dundal suuf googu i ñu doon wax muy imaaratul ard bi ñu doon wax mënta fekk liggéey amut liggéey amut faawu liggéey am borom bi tabaraka wa taala ba muy wax ne famshu fi manakibiha mooy dem leen liggéey borom bi tabaraka wa taala eh, moo wax ne wa yastaxlifakum fi l ard fa yandura kayfa taamaluun yàlla daf leen a suuf daf leen ngeen doon ay xalifa yu fi nekk maanaam ay ay wuutal ñu am fi responsabilité bu ñu war a def waaw fa yanzura kayfa ta'malun muy xool nag nan ngeen di jëfe nan ngeen di liggéeyee lan mooy doon seen liggéey fii borom bi tabaraka wa taala neen wa qul i'malu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun nee jëf leen yàlla dana gis seen jëf ak yonentam ak jullit yi ku jëf des na ko gis sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci yim gën a soññee bi nee maa min muslimin amul benn jullit garasa garsan fa yakula minhu insaanun aw tayrun illa kaana lahu bihi sadaqa amul benn jullit boo xam ne dana jëmbat benn garab wala benn mbay toppatoo ko mu ñor nit jaar fa mos ca benn doom lekk ko wala picc lekk ca nee na lu dul dañu ko ciy bindal sarax kooku soññee la ci liggéey yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na maa akala qattu xayran min an yakula min amali yadihi wa anna nabiy allahi daawud kaana min amali yadihi nee na kenn lekkul lu gën li liggéey kenn lekkul lu gën li nga liggéey ci sa loxo mu ne yonent yàlla daawud day ab yonent la boo xam ne lam daan lekk da ko doon liggéey ci loxo xam ngeen lu mu daan liggéeyee di ca lekk la mu daan lekk yonent yàlla daawud lu doon ab liggéeyam hmm? da doon tëgg tëgg boo doonoon liggéeyam loolu la nga fay jële mooy métier yu suufe yi nga xam ne nit ñi ñoo ko créer seen bopp def ko ci seeni xel ba kuy liggéeyee tëgg sax ñu ne ko suufe la ba wut sax aw askan waan dañ ko tudde askanu tëgg loolu ci jaahili gi yonent bi sallallahu alayhi wa doon wax ci la ko boole yonent yàlla daawud ci yonent yu mag yi yonent bi sallallahu nee na loolu la doon liggéey kenn ku ne ne Euh, lu mel ne suñ société yi wax dëgg yàlla ay gàllankoor yu bare bare bare bare ci liggéey am na ci bokk na ci gàllankoor yooyu mooy ñu bari dañuy xool yoonu liggéey daal ne dafa yeex yoonu liggéey dafa yeex xëy di kocc koccal di liggéey di dajalu ndànk-ndànk ba bëggee am dara loolu kenn xamut kañ lay sotti ak fu mu jëm te bakkan bi dafa yàkkamti dafa daal di bëgg a am li mu bëgg am ñu ne kon daal jëflante yi nga xam ne mooy yu bees yi ñu naan ay homme d'affaires ak nit d'affaires nangam nangam ngay dugg di génn yor sab saak sol sa costume bu ñuul wala karawaat kenn xamut la sa métier ngay dem ak ñëw ñu ne loolu moo gën a gaaw ci am xaalis ba tax ñu indi benn terme boo xam ne dañ ne alal des koy lijjanti waaye di su ko liggéey loolu ay musiba la alal su fekkee ne di su ko liggéey kon am réew moom kañ lay jëm kanam am réew moom des koy liggéey mu door a jëm kanam moom am la góor ga doon wax naan ginnaaw xaalis moom ay këyit rek la xanaa mënuñu ci def lu doy benn yoon rek ñëpp ñu jox leen bañ doyal suñ ko defoon itam kenn ku ne ñu jox la ba nga doyal jox la tonu këyit ci xaalis boobu du tax réew mi moom jëm kanam gaa yéen a seeni kayit yoo xam ne moom luy jaay lu ne mën nga koo jënd waaye nag réew ma jëmut kanam kon bokk na ci tomb yooyu gàllankoor suñu mujtama bi société bi moo di jàpp ne liggéey dafa yeex wala nga jàpp ne alal des koy lijjanti wala nga jàpp ne bunti riba yi mooy yi gën a gaaw wala bunti carte yi wala fëkk alali jaamur yi wala sàcc wala exploité doomu aadama yi xeet yooyu yépp ay bunt la yoo xam ne nit ñi moom lañ jàpp ne moo gën a gaaw ci am alal ci dem liggéey loolu nag boo ci dollee yeneen njaaxum yi nga xam ne moo dugg ci wàllu njabar yeeg xar nga fuufa yeeg kenn ku nekk ubbi dara defe ne loolu moom buntu fàggukaayu alal la dangay gis ne société bi dañ ko paralysé ci xeeti ay nit yoo xam ne wutukaayu alal yoo xam ne ñoo ko indi yoo xam ne bokkut ak liggéey te liggéey suñ ko defut même nit ñi bu ñu amee xaalis réew mi moom bu jëm kanam parce que alal ji daganut jaarul fi mu war a jaar kon tomb bi lislaam njëkk a faje ak ñàkk mooy nit ñi liggéey nit ñi liggéey nag yow yow ci sa jëmmi bopp en tant que doomu aadama ji yor am xelam xam lu baax moom xam lu baaxul ci moom am nga responsabilité foofu am nga responsabilité ne yow yaa war a jóg wuti loo liggéey dangaa jàngul am métier demal jàngi nga wut métier liggéey loolu moo gën ci yow seetal buntub loo xam ne jàpp nga ne lii xarañe nga ko te mën nga ko jëfe nga dem jàngi loola ba man ko nga dem liggéey kooku sa responsabilité bopp beneen bi ci des mooy état am na responsabilité moom it ci wutal nit ñi lu ñu liggéey ndax état ci boppam it dafa war a liggéey moom ci boppam waaye nag responsabilité bu mag moom ci yow lay dellu am na boroomi alal yoo xam ne am nañu responsabilité ci loola parce que boroom alal yi war ñu koo jël rek rënk ko denc ko noonu ba keroog ñuy faatu rek ñu génne ko seen njaboot doon ko déedéet alal ji daa war a génn ñu taxaw ci entreprise taxaw ci ay liggéeyukaay taxaw ci ay établissement doomu ñëw liggéey liggéey bi am njariñ réew mi jëm kanam waaye kat su fekkee kenn ku ne la nga am da koo denc rek kooku moom mbir mi di jëm kanam te Sénégal da gis ne lu gën a bari loolu ci li ko gàllankoor ci la bokk même boo dee xool boo jaaroon fii tey jëm mbuur li ngay gis ci ay terrain yoo xam ne ay tool la yu baax yu ñu war a mën a bay ñu miire ko ba àggal bàyyi ko noonu kenn defu ci dara lu tax nga miire sa terrain bi xanaa xaar rek mu gën a cher ba ma mën koo jaay. kooku jëndit bu noppee noonu la koy bàyyiwaat moom mu gën a cher mu jaay ko mu continuer doon ab terrain rek te ànd ak ne terrain boobu su fekkoon ne ñëw nañ bay ko képp diir bu gàtt mën naa génne loo xam ne ka jàpp ne lam ko gën a seer la mu ko jaay mooy la gën a cher dana génne lu ëpp loola ñaareel bi ñeneeni nit danañ ñëw di fa liggéey ñoo xam ne moo xam juróomi nit lañ wala fukki nit danañ ci am la yóbbu seen kër mu doon teraanga am réew jëm ci kanam am koom génn lu fa nekkul woon nekk fa parce que mbay mooy andi lu fa nekkul woon waaye ab terrain buñ miire mu toog ko moom andiwul dara man dafaa nekk noonu su ko defee loolu mbir lay mat a bàyyi liggéey mooy ponk bi lislaam jëkk teg ne defi dem leen defi ko mooy faj ak ñàkk lislaam buy wax faj ak ñàkk waxul faj ñàkku nit képp de yow mi dee def waaye day faj sa ñàkk fajaale ñàkku sam réew beneen bi teg ñaareelu rukn bi mooy al iqtisaadu fi l infaaq al iqtisaadu infaaq mooy booy dépensé booy joxe li ngay joxe na fekk nga man na tolloog fa sa man-man toll moo tax boroom bi tabaraka wa taala bi muy tagg jaamam yu sell ya daf ne walladina ida anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kaana bayna dalika qawaama nee na ñooñu bokk na ci seen melokaan yi yàlla tagg moo di ne bu ñuy dépensé lam yusrifu mooy duñu yàq walam yaqturu waaye duñ nay itam wa kaana bayna dalika xawaama waaye ci digg bi lay nekk àggul ci yàq waaye nag weesu na nay mooy kon day def farata rek mooy kon farata lay def borom bi nee na wala tajcal yadaka maglulatan ila unuqika wala tabsutha kulla albasti fa taqcuda maluuman maxsuura dee na say loxo bul ko lem rek ci saw loos nay foofu la mën a yem mooy say loxo nga def ko ci saw loos sa loxo du tàlli mukk sa loxo du tàlli mukk waaye nee na nit bul tàllal nag rek ne mu nga jël leen wala ngay fab di tasaare nit ñi di jël ndax soo ko defee nee na yaraangeet moo ciy tegu mooy da nga dem ba yàdd sa bopp danga ne def naa lu ëpp te bu boobaa yaraange jooje duutu am njariñ borom bi tabaraka wa taala nee na wala tubadir tabdira nee na bul yàq inna almubadirina kaanu ixwaana shayatin wa kaana shaytaanu li rabbihi kafura nee na nee na yàq alal nee na shaytaane mooy mbokkam parce que iblis loolu la bëgg dëgg la firiwul ne nag yéefar la waaye nag ñu ne la yaay mbokkum shaytaane kooku musiba la gaaw jóge ca mbokkoo googee daal di dagg moom loolu moom da nga caa war a daal di taxaw kon l'islam dafa teg benn mizan iqtisaadi daqiq boo xam ne boo xoolee ci économie tey ci àdduna économiste yi gën a xóot ci wàllu gëstu ci ni ñu doxale réew yi mooy bu ñu bëggee xam réew mi day jëm kanam wala day jëm gannaaw dañuy xool li muy am ak li muy dépensé foofu la ñuy génnee thermomètre boobu la ñuy jëfandikoo ngir génne ay points yoo xam ne yu wàcc lay doon wala yu yéeg kooku l'islam da ko tegoon bu yàgg nee na li ngay joxe xoolal li nga am nga joxe lu tolloo fa mu toll nga defe noona kon loola tomb bu am solo la nun nag noo ngi ci société boo xam ne ñaari tomb yooyu ñu tudd wala ñaari ponk yooyu nga xam ne lislaam ci lay saafara ak ñàkk mu di liggéey ak bañ yàq wax dëgg yàlla sunu sunu askan dellu nañ gannaaw foofu lool maanaam lin am ci ay image yu tàyyeel ak ñàkk a def ci sa bopp ci liggéey kenn xamul nu toll waaye lin am ci xeeti yàq yi itam kenn xamul nu mu toll bu dee ca poman yàq gaa nga fa bëree yaag dajaloo ga di misig yaag fecc gaag fenn fu ci ne ay ay alal yu mag ngay dégg ñu di ko tudd ay million yoo xam ne dañ koy joxe ci ay guddi ci loo xam ne ay caaxaan la xew-xew yi am ci biir kër yi ci wàllu social ngénte laag ciit gaag ba ci nit ki jóge na màkk sax yooyu yépp ay xeeti yàq dafay am yoo xam ne liñ fay yàq kenn xam nu mu xew-xew yi nga xam ne dañ koy askane diine la fay dajaloo ci yàq kenn xamul nu mu kon nag aw askan bu fekkee ne ci wàllu liggéey dañoo taayeel ba noppi lañuy ñuy am akus néew ñu ubbi bunt yu dul jeex bis bu nañu fentaat yeneen i bunt yoo xam ne pour gën a mën a yàq alal la li fi xeet woowu ñi ngi mel noonu ak luñ la mën a wax ci àdduna jëm kanam moom danañ ko yeex a àdduna la nekk boo xam ne àdduna bépp dem nañ fi mu nekk suñ réew mi bokk na ci li ko freiné li ko gën a delloo gannaaw moo di ay xew-xew yoo xam ne nit ñi ñoo koy fental seen bopp tudde ko ay xew-xewi diine di ci def ci ay alal kenn xamul nu mu toll mën a xëy benn bis genn wàllu jur gi woon ci réew mi yépp ñu xëy rendi ko benn bis mu jeex kenn du ca jariñ ñu sànni ko luñ mën a lekk ñu lekk ko luñ mënta lekk ñu tuur ko su ko defee nag ñu ne dañoo manqué ak jur nag bu tabaski jotee ñu naan Mauritaniens yi buñ ubbiwul frontières yi Maliens yi buñ waaw pourquoi lu tax ñooñu ñoom ñu am seen yëf ba géejal ba ñuy ubbi frontières yi ñoom seen yëf di ñëw lu tax du bu waxtu yooyu jotee nun leen war a jaay ak jur pourtant am nañu jur ñun itam de waaye noo ko yàq ku yàq loolu la lay jural léegi dem na ba xew yo xew yooyu bu amatee sax jur gi ngir ñu am ko ci réew yooyu lay jóge ñu ko mën a am su ko defee na nga ne nga ne xew-xew bi day baax na ci économie réew mi ndax nit ñi dajaloo nañ xaalis bi tasaaroo na waaw ka jóge fële ci Mauritanie jaay junniy gëleemam yóbbu ay milliards cam réewam nga xëy di sa junniy gëleem mu tasaaroo ña ca lekk-lekk ca lay yàqu-yàqu ña dem moo jariñu ci économie wala yow yaa ci jariñu ka jóge mali màng ak juróom yépp ñëw jaay ci la ko nga xëy rendi ko ci benn bis mu jeex mu yóbbu xaalisam dem toog cam réewam nga ne baax na ci économie réew mi parce que nangam nangam nit ñi dañuy nax seen bopp ci wàll ci wàll gi faw su fekkee ne mbir yi nar nañ mu tegu ci yoon nit ñi jóg ngir bëgg a tabax am réew faw ñu tabax doomu aadama yi ñu tegu ci siraatul mustaqim li bokkul ci diine ji ñu xam ne lii bokku ci l'islam daf fe nekkoon am yum jàngale ñu xam ko am ñaari feet yoo xam ne jullit yépp ñoo ko xam muy korite ak tabaski amuñu beneen loola bu ñëwee la ca lislaam santaane yàq nekku ca korite luñ fay rendi sax far amu ku ko def yaa ko defal sa bopp waaye lislaam moom wari leen rek loo wax bi jotee fa lañ santaane rendi kuñ ko sant ki ko man waaw man de mënuma ko ndax awma lu ma dundale sama njaboot fi ma nekk damay xëy di dajalaatu rek ñu ko wàcc na la amuloo ci benn bàkkaar dama toog yaa ngi sa jàmm waaye ba dee yaa sa bopp nag ne faaw def ko nag kooku moom day day daal di jafe kilifa diine boo xam ne nit ñëw ci moom di ko ñaan si ay tabaski bu waxtu bi jotee mbooloo mu dugg ci kër gi gis ñu bari lool mu daal di dugg rek di leen woo kenn par kenn ku ñëw mu ne la sa digganteeg yàlla amuloo am tabaski léeg-léeg mu ragal ne ah wax dëgg yàlla bàyyi naa ko de mu ne ko waaw ah, boo demee nga tabaskeeku keneen ñëw sa digganteeg yàlla bay amoom tabaski nga ne ko déedéet mu ne ko demal wàcc na la mu ñi ñuy romb di dem rek te xamuñu lu tax mu leen fekk fekk noonu yooyu rek moo fi nga man ko wala nga ko soo ko mënee demal nga def ko soo ko mënut nag wàcc na la kon lislaam amut lenn lum yan nit ki loo xam ne buntub yàq dafay dugg lépp da ko normaliser teg ko ci yoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñàkk daf ci daan muslu allahuma inni audu bika min al kufri wal faqr xam nga ne kuy muslu ci kéefër ak ñàkk xam nga ne ñàkk baaxut kooku des koo war a xeex waaye lu mel ni lii nag moo koy xeex moo ko mën a xeex bal lislaam dafa méngale sax ci ñi nga xam ne dañoo xëy dem liggéey ak ñi nga xam ne dañoo xëy dem jihaati fi sabilillahi mu ne wa axaruuna yadribuuna fi l ardi yabtaxuuna min fadlillahi wa axaruuna yuqaatiluuna fi sabilillah mu ne ñee nga xëy dem liggéey sàkk ji wërsëgo yàlla ñee nga xëy dem jihaati fi sabilillah ñëpp ñu baax la kon tëg xasu ci kenn waaye ñoom ñëpp dafa leen a boole tagg leen ci benn béréb moo lay won ne liggéey bi ci boppam lislaam bëgg na ko waaye ñàkk a yàq gi itam lislaam bëgg na ko su fekkoon ne daal e, bunt boobu ñu nekkoon noonu dañ ko bëgg a gàttal dañu gis ne développement économique ci lislaam dafa dugg ci biir développement bu gën a yaatu muy defar defar doomu aadama ji ci boppam ba noppi ñaareel ba moo di ne ngir géwal économie bi ci bopp mu jëm kanam du caa génne da ngay faj sa aajoy bopp rek yow doomu aadama waaye aajoy yi ngaa gëm ne aajoy société bi dafa war a faju loolu moo tax l'islam fàttewul société bi benn yoon ci li nga xam ne moom ngay am yow ba yow mi war a joxe asaka sax da ngaa war a dindi delloo ci société bi nit ñi jëriñoo ko yow mi amul loo def asaka sax daf laa soññale li nga am tamuy lu tuuti génne ci sarax nga joxe ci def ci la nga ci man kon joxe moom wàccul kenn boo amoon ñaari dërëm lislaam nee na boo joxee benn bi li nga def baax na ndax ndax li nga am sa alal yenn wàll nga joxe nga ko su boobaa kenn du ko woyofal euh, tomb bi ci sës ci principe yi nga xam ne moom la lislaam teg mooy ñeenteel bi mooy alxurriyatu liqtisaadiya mooy lislaam dafa jox nit ki liberté ci sañ naa moom alal yàlla jooju moom waxoon ne alal la maanaam jox na nit ki liberté ne ko sañ na cee moom dara ndax doomu aadama dañ koo bind mu bakkanam borom bi tabaraka wa def ci li ñuy tuddee xubbu tamalluk manoon day bëgg ne lii sama yëf la loolu dafa bokk ci dundu doomu aadama ñu ne ku moom lii ñu ne diw mu yëkkatiwaat boppam ne ah waaw loolu maa ko moom loolu doomu aadama noonu yëg-yëg boobu daf koy am kon nag lislaam nee na ko sañ ngaa moom mooy nu muy amee mooy niñ la waxoon léegi demal demal liggéey am kon kooku sañ na ko waaye nag ni ngay amee lislaam dafa teg ay dawaabit ay reegal yu sew yoo xam ne dane nii ngay amee tomb yooyu danaa ci tudd an yakuna nachaatu alfardi naafian lahu wa li mujtamaihi la muy def ne lii ab liggéey la na doon loo xam ne amal na njariñ nit amal njariñ société bi li muy liggéeye na doon lu am njariñ ci société bi kon képp koo xam ne dangaa nekk ci société bi di liggéeyee loo xam ne amul njariñ yow sab liggéey dañ ko war a dakkal ki ñëw toog lal ne dari bukki lay jaay ak dari gaynde gi kenn xamul mu kooku amalul njariñ société bi amalu ko njariñ loolu dafa war a dakk ñaareel ba yajibu an laa yataarada nachaatu alfardi ma ahdaafi almujtamaci wa ixtiyaajaatihi nit ki li muy liggéeyee ak fi société bi jëm ak li ñu bëgg wërta doon loo xam ne day day contre loolu maanaam day nekk safaanub loolu maanaam day ñëw di leen yàqal ci wàllu liggéey kon ko <laughs> kooku lislaam du ko nangu ñetteel ba moo di su fekkee ne mi ngi jóg di liggéey ngir faj ay aajoom na ko jaare ci li jàppandi ci mawaarid ya fa nekk maanaam li nga xam ne mooy la jàppandi na sóobu yoon woow te jëfe ko maanaam bu mu def loo xam ne lu mënee sut la maanaam bu mu sànq taam la bëgg a wax nit ñaa ngi xëy di liggéey ñi ngi seen bureau ñi ngi sànq nga ñëw fii ci bedd mi jot sa peel di gas ñeneen looy seet nga ne damay seet pétrole laa bëgg a gis fas yéene nekk ca loolu di ko gas loolu sànq sa temps la bul dugg ci yooyu loolu am na ñeneen ñu ko war a seet ñu dul yow bokk na ci sàmmoonteeg bañ a lor sa bopp bañ lor itam société bi nga nekk loolu ñu doon tudd léegi ci rënk alal xëy na loola jariñ a ngi ci yow waaye luy lor société bi mi ngi ci am na it liggéey yoo xam ne yow ci sa jëmmi bopp dañ lay lor bokk na ci mooy def loo xam ne loo mënut la kooku danga koy wattandiku sa wér gi yaram mayu la liggéey sàngam loolu lislaam nee na bul dugg ci loola wala liggéey sàngam day xëy na sama wér gi yaram man man na waaye ay risque ngi ci biir yoo xam ne mën nañ la cee jàpp tëj la mel ne fraude mën nañ cee nangu say alal kon loolu mën na laa lor mën naa lor sab société kon bul dugg ci loolu lu ñu naan fraude la ak nangam dawal bokk na ci régal yi lislaam teg mooy sori jiima produire lenn loo xam ne lu baaxul ci doomu aadama yi la cigarette seeg sàngara seeg drogue beeg yooyu yépp dafa war a jóge ci société bi bokk na ci régal yi lislaam teg mooy li war ci sa alal nga génne ko bu dee asaka nga joxe ko euh, mooy ba ca gën fis bokk na ci mooy melowoo jikkoy lislaam yi nga xam ne moom la santaane ci yiñ doon wax léegi muy bañ a yàq waaye bañ a nay itam nga doon <laughs> ku digg doomu ci wàllu alal ji di joxe farata te bañ a yàq am na foo xam ne état dafay sañ dugg ci biir alali nit ñi li nga xam ne yow milkiyal fardiya lañ ko woon maanaam yow yaa ko moomoon ginnaaw bakkanu doomu aadama ne dama bëgg a moom lislaam neen la booy fàggu fàggool nii waaye nag am na fooy àgg état ci boppam day sañ euh, dugg si euh, lijjanti sa mbir wala mu tegaat ko ci yoon moo tax al iqtisaadul islaami muy économie ci wàllu islam mënees su ko taxawal te fekk état ci boppam participé ca loola léeg-léeg situation yi nga xam ne mooy tax nit ki lam moomoon nga xam ne sañ-sañam la état ñëw dugal sañ-sañam ci biir loola ay mbir koy waral bokk na ca su fekkee ne waa ji lii mu fàggu ba ne moom moo ko moom da ko jaare ci yoon woo xam ne wu daganut la wu baaxut la sellut lu mel ne corruption ak mboolem xeet yi nga xam ne moom la am lu mel ne nax nit ñi ci ay balance na ko alxuraan waxe ida kaalu ala nnaasi yastawfuun wa ida kaaluuhum wasanuuhum yuxsiruun su fekkee ci seen bopp la jëm daal day duun waaye su jëmee ci keneen ñi mànkil ko su fekkee dañuy nax nit ci wàllu balance wala ay marchandises yoo xam ne yu baaxatut la wala xaalis boo xam ne bu baaxut la moo xam xaalis bu foo la wala dafa doon xaalis boo xam ne nañ ko fàggu baaxut yooyu yépp état sañ naa dugg si nag régler mbirum waaja jëfandikoo yi nga xam ne wala nga commerce ci yi nga xam ne dañ koo xaraamal maanaam charia da ko xaraamal te réew yépp war ko xaraamal moo xam sàngara la <coughs> moo xam <coughs> drogue la moo xam medd la moo xam yàpp yu baaxut la moo xam ay jumtuwaay yoo xam ne jumtuwaay fola moo xam njaaloo la moo xam njibar la yooyu yëpp ay bunti fàggu la yoo xam ne état dafa war a dugg tëj ko tere ko ne loolu bu mu fi amati léeg-léeg nag da ngay gis euh, diggante sàngara ak drogue séparé leen dafa dafa siiw lool ci àdduna bi drogue moom defe naa ñëpp àndandoo dañ ci di ko xeex waaye sàngara moom ñëpp xam nañ ne léeg-léeg nga gis euh, réew yu bare bare bare dañu may nit ñi jaay sàngara ànd ak ne li jaadu woon mooy nañuy tere drogue la ñuy tere sàngara parce que li kii di def loolu la kii di def moo tax léeg-léeg rastamaan yi ñuy wax yu solo la waaye léeg-léeg dégg lu ñuy wax loo xam ne day day xaw a nuuru dëgg wax ne drogue moom daa loo xam ne dañ koy bay rek indi ko mu doon lu simple loo xam ñëpp ko mën a am te ko war a mën a ëppale li ñuy wax sàngara nag dafa aju ay usine dafa industrie dafa aju ay financement te loolu réew yu am doole yi ñoo ko mën a am ñu ne nag ñoom li nga xam ne ñoo ko mën a am di ko liggéey ci seeni usine ñu ne loolu na dagan li nga xam ne ñii dañuy bay rek dem watt jaay nag ñu ne loolu moom bu mu dagan moo tax nun ci lislaam dañuy wax ne lépp bon dara baaxu ci muy dorog muy sàngara sa muy lépp dafa war a jóge ci ci am réew bokk na ci yi tax euh, intervention état di am mooy al istiglaalul wazifi jël ay nit dajale leen fi béréb di leen liggéeyloo liggéey yu metti te doo leen fay wala la nga leen di jox lu tuuti la te fekk liggéey bu metti la maanaam la ñuy liggéeyee méngoowut ak li ñuy am loolu état da cee war a dugg réglé ko carte ak xeet wu mën a am maanaam carte bu dagan moom amut moo xam tur wuñ ko mën a jox ginnaaw carte la daal loolu mu dafa war a jóg parce que day daaneel économie sàcc wala riba wala rënk alal yooyu lis état day sañ a dugg si bu dee lislaam moo fa nekk yor alal di ko jëfandikoo noo xam ne du noona maanaam di ko yàq daal lislaam euh, bu boobaa état sañ naa dugg si ki nga xam ne dafa doon ndaw ndax amagut xel màggagul ñi te am alal ju bari parce que mën na koo doon kombali euh, di ko yàq kooku état day téye loxoom ñu denc alal ja ba màgg ba ànd akum xelam ñu jox ki am alal ba noppi doon ku dese nga xam ne xel mi baaxut kon ku ñëw laaj ko rek mu tibb jox la kooku état day téye loxoom denc alal ji ñu dem faji ko ba mu wér ñi door ko delloo alalam su fekkee ne wérut nag ñi xool nuñ koy jëfandikoo ci loo xam ne lu ko amal njariñ la ak nuñ ci investir ba mën a yokku ba ay njabootam ak ay bokk mën caa jariñu kon lépp loo xam ne dafa dugg daal ci xeetu lu baaxut wala ndax doomu aadama nekk ca wala lekk alalam la yu mel noonu su amee te fekk nit ka mënu koo fajal boppam état moo war a dugg si juróomeel bi ci principe yi nga xam ne ci la lislaam teg développement économique moo di al munafasatul xurra maanaam buntub concurrence dañ koo ubbi nit ñi sañ nañoo kenn ku nekk ubbi sa sa marché ubbi sa say bitik ubbi sa nangam ubbi sa entreprise marché bi moom dañ ko ubbil ñëpp maanaam de joxuñu ko ñi bàyyi ñeneen ñi ci des loolu nag buñ koy wax mooy ak tanafus asharif maanaam concurrence boo xam ne bu ànd ak ko sell la maanaam firiwul ne da ngaa iñaane keneen ki wala nga ne bu mu am naa am man dong déedéet kee daal mi ngi jaay lu baax mi ngi jariñ société bi manifestement yéen indi marchandise mu gën a baax moomu moo xam ne société bi danañ ci mën a gën a jariñ kii daal xool naa gis naa entreprise bi daal yi muy defar daal ni mu baaxee daal ak ni muy jariñu nit ñi fas na maa yéene def man it entreprise boo xam ne li may def mooy gën a baax yooyu loolu jëmale am réew kanam lu baax lu mu andi nga ne fas na maa yéene andi lu gën a baax loolu kon tanaafus bu mel noonu moom la lislaam di wax waaye nag tanaafus boobu muy xëccoo boobu bu dee am su fekkee xëccoo lañ ko mën a tuddee concurrence mooy am na yoo xam ne dañ ko cay tere mooy ixtikaar biñ tuddoon bu mu am bul ne bàyyi leen ñu jaay rek man ma denc sama yëf bu ñu jeexalee man ma door a tàmbali jaay déedéet bu mu dugg foofu naxe wala corruption wala nëbb ayib muy tadlis wala naxe ci ay balance wala wor nit loolu bu mu am ci sa concurrence kon bu sell lay doon bépp intermédiaire boo xam ne bu dikkee day seeral yëf yi maanaam yëkkate ko ci prix bi yóbbu ko ci beneen prix bu mel noonu wattandiku ko moom itam dafay yàq jëflante ci bépp forme bu mën a doon ci forme riba yi ak bu mu mën a doon ko dafa yàq alal kooku baaxul faaw yow mi nga xam ne yaay jaay wala yaay liggéey wala yaay produire li ngay génne faaw dëgg am ci maanaam sam njaay dafa war a ànd ak dëgg kii dikk na xool sa marchandise waa bii moom ndax original la nga ne ko ah bii moom du original yow mi jaay noonu lañ ko bëggee bii original la fekk mu doon ko nga ne ko waa bii moom original soo demee bañ xam la ci loolu jeex na nit ñi dañuy xam ne yow loo leen wax dëgg la dëgg googi nag dafa doon loo xam ne lu jaadu la kon concurrence moom tax nga fekk marchandise boo xam ne moo yées yooyu nit ñi yow nga ñëw melal ko melokaan woo xam ne ci saw làmmiñ day mel ne moo gën yooyu nit ñi concurrence àggut foofu su boobaa charia daf koy araamal kon daal su fekkoon ne dañoo bëgg gàttal wax ji yépp ci ay kàddu yu gàtt dañuy wax ne at tanmiya al iqtisadiya fi muy développement économique ci l'islam doonul rek alal ju ñuy fexe ba mu bari waaye mooy tabax nit ci boppam ba doon ko jub bu jubee nu muy mel dana nangoo dem liggéeyi te buy liggéey dana fekk ne li muy def da ko jàng ba xarañe ko di ko def te bu koy def ak njub la koy booleel biñ noppee ci nit kooku ci fànn googu beneen bi ci des mooy jëmmi alal ji muy fàggu ci boppam fàgguwu ko rek ngir na am alal jum yóbbu këram waaye da koy fàggu ngir ne day jaamu yàlla wax yàlla moo ko sant loolu waaye da koy fàggu ngir ne dañuy tabax am réewam mu doon kenn ci ñi war a participer ci tabax réew moomu mu taxaw ci liggéey bi mel noonu su noppee alal ji nga xam ne moom moo am mu génne ci àq ji nga xam ne moom la ko lislaam ni génne ko mu des tombub nag alal yooyu nga xam ne moom la lislaam di wax ne génne leen ko nuñ ko war a mën a saytoo nag ba ba xeex ci ak ñàkk wax naa bu liggéey amee ñàkk yàq am ak fu mu mën a doon ci àdduna jàppal ne ci xikami sun borom tabaraka yi gën a xarañe ci la bokk mooy fu aw nit nekk fu nekk lu leen doy ba des ma nga fa fu aw nit nekk fu ne lu leen doy ba des ma nga jamono yoo xamee ne ñi mën a liggéey ñépp ànd nañ di liggéey te kenn yàqul bul am looy nattable ci ne alal dana tasaaroo ba nit ñi dese loolu ni muy amee mooy li war a génn ci alal ci ay àq dellu ci ñi ko yeyoo Omar ibn Abdul Aziz ci ñaari at képp ñaari at bi mu dikkee ay problème yu bari la fekkoon ci am réewam alal yi dajaloo ci ay loxo yoo xam ne daal ñu yor nguur moom kenn ku nekk li nga yor ci or ak xaalis ak alal kenn xamul toll ci àdduna bi mu dikkee li mu jëkk def en tant koo xam ne ci buur yi la bokk bokk ci famille mooy alal ji na génn parce que dañ ko liggéeyoon dañ koo dajale te ko ci dëgg maanaam léewut su génnee fu mu jëm ñu ne baytul maal luy baytul maal mooy li ñëpp bokk ba mu dikkee ci boppam la tàmbalee ca yam donn moom ñëw ci soxnaam ak yam donn ne ko na lépp génn kooka di bëgg a déng-déng mu ne ko xoolal ñaari mbir bu fekkee ne àdduna ak li ci biir ma la gënal mu bàyyi la ak sa alal nga dem saw yoon bu dee ànd ak Omar nag ngeen ànd dund fii ci àdduna njub ànd dund ci àjjana loolaa la tax a jóg demal indi alal ji nga doon ne ci sa baay bi moomuñu ko woon alal jullit yi lañ dajale ndaw sa dugg ci biir seet ay walisam or ba fa nekk nag lépp mu rinki ko dikk teg mu woote nit ñi dajaloo mu génne lam amako si néew def ca moom it ne yóbbu leen baytul bi foofu lu fa xas dugg ko bokk bi loolu amee mu tàmbali ci boppam ak soxnaam nag ci lañ xamee ni kii kat mi tàmbali jéego boo xam ne dana ci la demee nag ca doomi bàyyi yaag doomi bàyyi yaag coow li tàmbali ci biir bi fenn ku jaar waaye bàyyiwu leen ba mu leen daataan bàyyi kenn ku nekk loo yoroon ci alal joo xam ne da nga koo denc doon ne ci ñoo xam ne xam nañ ne buur bu ko jëlee woon ci keesu réew mi la yooyu delloo si nañ ko yóbbu ko baytul maal muy trésor bi loolu amee li dajale ci alal kooku benn plan la boo xam ne bi mu daj li fa nekk ci alal ci baytul maal kenn xamul nu mu toll mu door def déclaration bu siiw ba nag ne léegi nañ wër fépp ci gox yi képp koo xam ne nit dalaa mas a tooñ te ëpp la doolee tax nangu sa suuf wala mu nangu sa alal wala mu nangu sa dara taxawal nañ benn tribunal boo xam ne liggéeyam mooy loolu na ñëw wax si ko fa bu doon man Omar maa ko def wala sama soxna wala samay doom wala kenn sax nañ tàmbalee ci ñooñu ñu tàmbale ay nit di ñëw di jàmbat man de sama tool ba nekkoon béréb sàngam diw mii moo ko nangu ñu di jëlaatal delloo ko ab toolam fii de man de amoon naa fi fas woo xam ne nanga man naa damaa romb diw sàngam rek muy buur mu ne ma lii fasu buur la daal di nangu wala diw sangam kaay delloo ko aw mu ko seetal ci alal lu tolloog moom nga delloo ko la ko toppee ba benn mos la ma amatut kenn ku tooñ kenn ci kaw door a tàmbali nag xool nag ndaw ñi ñi amut liggéey mu di leen jox ci alal loo xam ne day tolloog loo xam ne mën naa dundal nit am at ni ko yéen yéene waa asak ku jël lu la mën a dundal at dem tàmbali di ci liggéey bi at mi daataan jeex yow sa bopp at mi jeex nga ñëw ne man damay génne si asaka ndax am naa asaka mujj faf ñëpp di génne asaka asaka ji amatuñ ku ko lekk baytul maal xaalis daje jeex kon saafara saafara ak ñàkk noonu lay demee maanaam wax leen ko salaamaaleykum cinquante cinq AC dafa taxaw si dañuy dugg mu dimbali ñu jëlee ko oto bi vingt cinq cinquante cinq kon saafara ak ñàkk dafa mel ni ci loolu rek ci la mën a ci la mën a ci la mën a nekke maanaam faw alal yu lew mooy circuler ci biir nit ñi faw tooñaange ak lekk alali jàmbur dafay dañ faw maandu te day tasaaroo ci biiru askan faw dem liggéeyi day am joxe ak yàlla yi nga xam ne ci doomu aadama yi lañ koy delloo kooku day am yooyu yëpp su amee moom ñàkk day daal di jóge ci réew mi réew mi tegu ci siraatul mustaqim yàlla na nu sunu borom wa taala defal lu mel noonu ci jàppandalal nu ko euh, kon mën nañoo yem foofu li ci des ñu delloo njiitul jotaay bi kàddu gi wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain jazakumullahu xayran cheikhana alkarim ñu lay sant ci waxtaanu leer wi def naa ne mbokk yépp tabaarakallah jariñu leen tey ci bind bu am solo bii nga xam ne moom lañ jëlee ci Cheikhna Mouhamed Ahmed Lo mu aju ci tomb bu am solo comme ni ma ko waxee woon ci tàmbali waayu waxtaan wi ci développement économique euh, li ci des nag euh, mooy ñi doon déglu waxtaan wi seen euh, wàll moo ci des lu fi nekk ci ay laaj ak mën nañ jël ay tur itam bu fekkee waa am na ay laaj yu ñëw itam ci eh, ay kayit bu fekkee am na ñoo xam ne tam dañoo bëgg a laaj eh, en mën na noo jël seeni tur par tur bi tur bi Bachir Alpha waaye dañuy yemani ci juróom yi ba mu jàll ak laaj nga xam ne moo ci jot ñëw euh, Saz kii mbokk la moo xam ne dafa indi laaj yu bari dama xamul ndax soxna takku de ñu jox mbokk yi parole bi euh, mbokk mu njëkk mi Moustapha Kane bismillah boo xam ne day tanaqul microphone buy kii bismillah man li ma doon laaj mooy lu jëm ci wàllu fàggu alal bi nga waxoon lu jëm ci wàllu commerce boo demee ci risaala ibnu abi saydin dafa am benn buntu buntu de baabu salam baabu salam foofu doon laaj lan mooy salam maanaam liñ ci war a def ak liñ ci war a def léegi bi ci des mooy usines yi nga xam ne dañ koy tijji ñuy def lu mel ne ay saf-safal ak xeet yooyu nga xam ne ay boroomi xam-xam dem nañ ci gëstu ba ci yenn yoo xam ne produit la yoo xam ne yu yu yu yu garaaw la ci wàll wàllu santé loolu jullit am na sañ-sañ am usine yu mel noonu salaamaaleykum wa rahmatullah euh, Abdullahi Sarr salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. salaam. yaa cheikh laajte bi ma doon laajte dañoo dégg sànq ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa da doon muslu ci ñàkk dañu dégg suñu yaay Aïcha naan dañ doon toog ay weer gis weer bi seenaat ko du cin du tax kër yonente bi kon nan la ñuy boole ñaari mbir yooyu wa rahmatullah Bachir Dia asalaamaaleykum wa uh, man damay ñaan tuuti rek sëriñ bi laa ñaan uh, ci tafsir qur'ana dañ koy déglu bu baax léegi nag dama bëgg a pour laaj ko est-ce que tafsir Qur'an lam ci bëgg jamil euh, Abu Salima salaamaaleykum wa rahmatullah euh, sànq docteur dafa wax mu ni eh, xadis bi yeneen saa sa naan eh, yeneen yàlla daawud daraan dund ci ci liggéey ci loxoom léegi dama doon laaj parce que loolu dafa xaw a nekk tuuti ci man eh, lënt quoi a na sama gàtt àlliwa moo tax est-ce que yeneen saa sa mu amoon na liggéey bu mu daan liggéey moom boo xamante ne ci la daan dundee salaam. Sëñ Alpha. salaamaaleykum wa li ma laaj mooy ba xam ndax am na benn yoon boo xamante ni bi lislaam may na jullit di jëfandikoo wala di liggéey ak waa banque bu dee dagan na ci ban yoon ak ban anam lay yooyu boole koog yi nga xam ne ñoo fi jot a ñëw incha allah ba mu jàll ba mu jeex. bismillahi rahmaani rahim lim jëkk laaj mooy assalam xëy na moom ci risaala la ko fekk waaye téere fiq yu bari baabu salam boo demee da nga fekk salam nag buñ ko waxee ci fiq mooy jënd loo xam ne teewut jënd loo xam ne teewul loolu dafa dagan ci ay charte maanaam am na marchandise boo xam ne danga koo soxla Mohammed mi baaxoo nag di ko jaay waaye amu ko fii mu nekk nii nga ne ko man dey dama soxla ci misaal benn portable charte ya mooy portable boobee nanga ko melal na nga bëgg mu mel noona ba dara du des ci melokaan woowa bu dee marque sàngam la nga ne ko marque sàngam la bu dee marque boobee daa am ay kuréel ci biir nga ne ko kuréel yi nii la bu dee buñ liggéeyee dëkk sàngam nga bëgg ma ne ko bi ma soxla nañ koo liggéeyee dëkk sàngam bu dee original ba nga ne ko original ba laa soxla bu dee couleur ba sax nga ne ko couleur bu mel nangam laa soxla su fekkee melokaan yooyu yépp dëppoo na ngeen dëppoo ci kañ la koy jox mu ne la bis sàngam ci laa la koy jox su ko defee sañ ngaa jël sa alal jox ko mu dem yooyee mu waxoon ak yow ngeen bind ko mu nekk ci contrat bu ca manki bu ca manki sañ ngaa jëlaat sa alal yow bu la neexee nag dara manki ci nga ne ko loolu mën naa ko tolore maanaam couleur bu ñuul daal laa la waxoon bi nga ma indil bu weex la kooku garaawut andi baax na waaye daal am nga sañ sañub lu ca ne lu ca wàññi ko tuuti tuuti daal sañ ngaa jël sa alal kon kooku mooy salam ci alfiqhul islaami ci nañ ko gën a mën a gën a yombale ci kàllaama ngi muy waxe ñam yi nga xam ne ay nit dañ koy jëfandikoo dañ koy liggéey di ko génne te fekk ay lor daf caa bari foofu euh, bala ñoo wax ban taxawaay la ci jullit war am am na lu ñu war a jiital mooy lor jooju war nañoo confirmer bu wér ne am na war naa wóor ne lor ji ñuy wax ne marchandise sàngam mi ngi ci produit sàngam mi ngi ci lor joojee war naa doon dëgg li tax ma wax loolu mooy société yi nga xam ne dañuy concurrence seen diggante dafa bari yu ciy xew yu mel noonu léeg-léeg benn société day xëy rek bind wenn kayit woo xam ne ci benn produit la koy bind boo xam ne kenn xamut këyit bi fan la jógee wax ne lii nangam euh, diwu Euh, mbaam a ngi ci nangam a ngi ci gis nañ ne nangam lay wàññi nangam lay wàññi tasaare ko ci internet bi wala ñu tasaare ko ci marché bi boo jaar daje këyit woowu te doo xam ki ko génne kum doon lam ci jublu mooy xeex beneen société bi parce que gis na ne mu ngi jaral te moom li muy jaay lii gën na koo jar mu bëgg a yàq la moo tax na teey waaye nag su fekkee dafa dem ci laboratoire yi nga xam ne nit ñu jub ñoo ko yor ñu dem ba xool ne <coughs> lii xaw ma xeetu saf safal la koy jox waaye gis nañ ne lii moom li muy lor doom aadama moo ëpp njariñ lañ ciy séentu su boobaa lépp lu mel noonu jullit bi moom day tey loxoom sañatu koo jaay te it fexe ba bañ koo lekkati mooy li gën xam ngeen ne yu mel ne yooyu mu tudd bari na ci yoo xam ne moom wér na ne day lor doom aadama moom am na ci yoo xam ne la ca ne ci xorom ak la ca ne ci yeneen matières yoo xam ne xamut xamut lu lu mu doon ak ci luñ ko jëlee ci yoo xam ne day faagaagal wér gi yaram wala muy yàq doomu aadama ji yu mel noonu su ko jullit bi demee ba xam ko moom da ko war a wattandiku bañ koo jëfandikoo euh, yonent bi sallallahu alayhi wa ci muslu ci ñàkk téewul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon dund melokaan wi nga xam ne moom la nu Aïcha radiallahu taala anha wax daana dem ba toog lu yàgg ci këram te cin du fa tàkk tàndarma la ñuy lekk di naan ndox daana tëdd ci ak basan ba marke ci yaramam dafa am ñaari mbir ñàkk ñàkku bañ a am dafa bokkul ak tànn liggéey dund yow yonente bi sallallahu alayhi dund gu metti gu wow googu daf ko tànnaloon boppam am na jamono yoo xam ne mi ngi dund dund googu te magasin yeeg baytul maal li fi nekk ci alal dafa fees dell ba noppi téewul mu tànn di dund loolu am na bés boo xam ne dafa julli suba salaamaaleykum rek daal di jóg jéggi mbooloo mi ci anam goo xam nit ñi dañoo tiit sax ndax mosuñu koo gis te muy julli fajar mu dem dikk euh, am lum def nit ñu nekk foofu ba àggal delsiwaat ci jàkka ji ne xam naa ne ni ma jóge de jaaxal na leen waaye dafa am zahab maanaam or boo xam ne dañ ma koo jox biig ma waroon koo séddale ma fàtte ko ba xëy te bëgguma mu yàndu ci kër gi loolu moo tax bi sama xel demee rek ma jóg dem jëli ko ngir jox ko ki koy séddale wala jëli ko séddale ko loolu moo tax mu jóg kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam alal a ngi fi woon baytul maal en tant que koo xam ne moo jiiti jullit ñi lépp loo xam ne ittey jullit lañ ak seen intérêt ci lay xëy ba ngoon moo xam ci jàngale la moo xam ci jubbanti la moo xam ci jiite leen ci xeex la moo xam lu mu mën a doon daal ci ci lislaam ak ci jullit yi daal ci la ak dundam nekk bu xëyee ba keroog muy tëri kon kooku amoon na <laughs> amoon na droit ci jël salaire amoon na droit ci jël salaire comme ni ko xalifa yi ñëw gannaawam jëlee Abubakar radiallahu taala anhu bi mu ñëwee gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko falee mu nekk amirul muminin daa xëy gàddu ay jumtuwaayam jëm ca tool ya Omar ne ko foo jëm mu ne ko damay liggéey mu ne ko déet ba nga doonee am Abubakar kenn du la tere nga liggéey waaye boo liggéeyee intérêt jullit yi ak ñi ñëw di la seet nu ñuy def waa mu ne ko nu may def nag sama njaboot nag mu ne ko dañuy seet lu jaadu ci baytul maal ñi di ko jox sa njaboot ñi di ko dunde ñi xayma lu tolloog la njabootam daan dunde démb ak bëkk démb waxuñu lañ doon dunde démb ak bëkk démb ñi seet lu toll noonu ñi di ko ko di ko ko jox ñi di ko dunde yem ca képp nag kon loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko neexoon mu laaj loolu wala mu jox ko boppam sax te kenn du ne ko lii lu mu doon wala dara waaye xam na moom dundiin wa nga xam ne moom la bëgg a tànn mu dunde noonu alayhi salaatu wasalaam ala la nga fi woon boo déggee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy wax ne képp koo xam ne faatu na bàyyi ay bor wala mu bàyyi ay jirim mu ne fa alayya wa ilayya maanaam njaboot ga man maa leen di jël maa leen di sàmm maa leen di jël en charge waaye bor nga yoroon it danaa ko fay kon booba ku ne xam na ne am na lu mu dunde waaye nag téewul mu tànn nag dund dundin mu metti woo moom yonent bi sallallahu defe naa loolu leer na amma tafsirul quran nag euh, bari na ci mbokk yi ñuy junj di wax ne dañ ko war a tàmbali waaye xam ngeen ne tafsirul quran moom dafa doon lu lu gudd gudd gudd loo xam ne Euh, bëggee su ko tàmbali di ko euh, gaawal ko ba nga xam ne na njariñ yi war a deme du ñu demee bëggee su ko tàmbali it te doo ci dem fenn moo tax ba léegi nattable gi daal moom mi ngi fi ba léegi ndax des na ko song wala diisu ko song wala ku ko doon song ndax boog da ngay tànn ay aay wala nga tànn ay saar wala yu mel noonu euh, ba léegi daal xalaat bi mi ngi fi incha allah danañ ko bàyyi xel yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw daawuda dafa amoon métier ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam amoon na métier ok yonente bi sallallahu alayhi muy doon ab yonente da doon sàmm loolu kenn ku nekk xam na ko ci moom sàmm nag jur commerce na itam commercial na Khadija radiyallahu taala anha ba tukki sax bitim réew di jaayi marchandise di indiwaat marchandise kon kooku métier métier yooyu yëpp yoroon na ko moom yonente bi alayhi <coughs> bi mu demee nag ba nekk nag amirul muminin eh, ma ne amirul muminin sax ba nekk nabiyul umma nekk yonentub xeet wi nag lim yanu ci ay responsabilité tax na ma mënul woon a dem nag di liggéey maanaam leneen lu muy liggéey moom foofu xel mënu koo xalaat lu dul daawa ak tasaari diine ak yi defar doomu aadama yi tabax leen kon tabax doomu aadama moo doon liggéeyam te liggéey boobu defe naa ne lépp tege na ci yoon amma fu mu doon jëlee lu mu doon dunde rek wax naa la ko yonente bi sallallahu a dañ ko daan jox addiye mu jël ko sarax du ko laal fenn sarax mooy asaka wala loo xam ne nit ki da ko génne muy sarax kooku bu ñëwee ci baytul maal la jëm kooku du ko lekk addiya nag du ci forfait kenn du ne kenn jox ma waaye ko toog fa li yor dara ba mu yàgga dal nga dikk ne ko yonente lii dama la ko jox hadiya loolu moom dana ko jël jëfandikoo ci biir këram dafa naa loolu ci li taxoon dundiin wa doon dundiin wu metti ci këram loolu ci la bokk ndax yeneen source yi doon indi alal moom jàppal woon ne dafa dagan ci moom mu war koo lekk du asaka du sarax sax te yooyu ñoo nekkoon baytul maal ndax dagan dañuy jëflanteeg banque euh, banque de dafa am banque boo xam ne banque classique la mooy banque riba yi ak banque boo xam ne banque islamique la banque islamique moom defe naa taxut borom di laaj ndax euh, lañuy faral di jëfandikoo su fekkee tegu na ci l'islam euh, finance islamique lay faral di jëfandikoo banque classique nag ak bu mu ci mën a doon dañoo am ay opération yoo xam ne sharia nangu na ko am yoo xam ne nanguwu ko su fekkee biñ lay woo bu bum nanguwut la boobu bul ko jëfandikoo ndax dagan na denc ci wala dagal lu ñu cay denc foofu kay ku ca loru mën na caa denc ku ca loru mooy dem nga ba nécessité la ci yow li nga yor ci alal mënoo ko denc ci kër ñu koy sàcc wala muy lakk te it gisoo banque buy jëfandikoo finance islamique boo xam ne fa nga ko mën a denc su boobaa mën nga koo denc ci banque boo xam ne classique la waaye ci denciin boo xam ne intérêt du ca tegu intérêt du ca tegu xam nga am na denciin yoo xam ne boo dencee yow li nga denc ñoom dañ ciy coppati weer wu ne jël ci dara woowu moo dagan lu tax parce que dañ laa denceel sa xaalis nga di leen fay dañ laa denceel sa xaalis nga di leen fay lu mel noonu moom charia terewu ko kon daal ki ci ñàkk pexe dañ la wax ne jëflanteeg banque yëpp dafa araam ndax am na opération yu dagan am yu daganut yi dagan moom sañ ko jëfandikoo yi nga xam ne da nga caa loru mënoo ko bañ a def ci comme ngay liggéey sa salaire ñu jaarale ko banque mënoo ci dara waaw nga jëflanteeg moom waaye lépp loo xam ne mën nga caa mucc daal tam tudd riba loola moom da nga ko war a daw da nga ko war a wattandiku def naa juróom yi moo nekk noonu euh, question yi kii defe naa ne lu bari ci laajim laaj tontu nañ ko ndax dafa moom mooy boroom laaj bi sax parce que nuroo na lool hmm. waaw ci wàllu ngénte xam naa ne xëy na dugal ci thème bi mooy eh, tomb yàq biñ doon waxtaane mu ne ndax dana dagan ci ngénte nit ñi dajaloo ca bis ba euh, gannaaw boo xamee ne euh, xam na bisu ngénte li mu yëgal ko nit ñi leen bis sangam ngénte la bisu juróom-ñaareel bi ñu ñëw mu ne ndax loolu aada la wala wala bidaa la xam nga ngénte ngénte mooy lan xale bi juddu ci bisu juróom-ñaareelam ñu reyal ko xar wat wat ko loolu mooy ngénte boo defee ñaar yooyu rek ngénte nga am na ñoo xam ne dañoo defee ne tudd mooy ngénte déedéet tudd moom mënees na ko def ci juróom-ñaareelu fan bi mënees na ko def xale ba juddoo mënees na ko def ci diggante bi saa bu la neexee mën nga ko wutal aw tur ci sharia laay wax de waxuma ci aada maanaam bu la neexee xale bi mën nga judd ba àggal ñu dooñ ba teg fee nga ne kii de mooy diw sàngam diw laa ko tudde miinu nu ko nag ndax aada ji miinu ko waaye sharia moom loolu la wax mën naa nekk kon tur bi noppi nañ ci moom mu des ñaar yooyu yi nga xam ne mooy ngénte muy wat ko ak reyal ko gàtt bi bu dee jigéen wala ñaari gàtt yi bu dee góor te fekk mën nga ko la ca des mooy pare nga léegi kon nag la ca des mooy question waaw yàpp wi ma rey nu ma koy def lislaam dalay wax ne na ngay def yàpp tabaski daal sañ nga koo def yàpp ngénte sopp nañ ko ca yàpp ki nuñ koy def salafu saalex nee nañ ngeen tabaski ñoom dañ ko daan seddale ñetti xaaj benn bi fuqaraaw yi lañ koy jox mooy ñi ñàkk beneen bi dëkkandoo yi lañ koy jox beneen bi ñu bàyyi ko ci kër gi lekk ko loolu daanañ ko def kon loolu jëfandikoo noonu ci ngénte lu baax la bu la neexee yàpp bi nga séddale ko rendi ko mu doon aw yàpp nga joxe dëkkandoo yi nga ne ab saam dee ngi yow miskin bi ci mbedd mi yalwaan saama ngi nii beneen bi ci des nga toog ko ci kër gi bu la neexee it nga defe ko neneen mooy lool yi nga leen bëgg a joxe nga togg ko yow woo fuqaraaw ñi ñëw nga woo dëkkandoo yi ñi ñëw waa kër gi toog ngeen bokk lekk ko mu jeex ngeen dem defe naa bu yemee foofu moom dara lu ñuy tere amu ci su dee nag dañ caa bëgg a dugal nag yeneen nag yi ci bokkut góor ak jigéen ñi di jaxasoo ñi teg misik ya nag di caaxaan ya nekk fa ak jëw ba ak jaxasoo ba ak wax yu tekkiwul dara su boobaa duñu wax ne dangaa def bi biddaa wala ni nga ngénte ngénte li baaxut dangaa war a ngéntewaat wala déet waaye am nga bàkkaar ci mbooloo mii nga fi dajale ñuy mooy yàlla mbooloo mii nga dajale ñu ki yendu fii di mooy yàlla di misik ko fecc ki def seen bàkkaar bi genn wàll gi yow yaa koy yóbbu kenn ku ci dana yóbbu waaye yow yaay leen ci ëppale ndax yaa leen fi woo kon loolu mooy li ci am dajaloo ga lekk daal di tasaaroo dem seen yoon moom dara nekku ci ndax bis bi jëkk ci weeru koor rek doy nañu yéene ko wala bis bu nekk dañoo war a yéene koor ñàkkul de boroomi xam-xam yu ko wax ci lenn ci téere fiq yi ne bis bu ne danga war a yéene waaye buñ fàtte ne yéene doonut lu ñuy wax yéene iraada la maanaam jubluwaay ki jekki ba njël mu jóg di xëdd kooku jaar na mu naan damay woor Hmm? ginnaaw ba koor amut daawut jóg waxtu woowu di xëdd defe naa ne te ki muy jëflenteel mooy boroomam maanaam du nit ñi kon boroom bi tabaraka wa taala li nekk ci sa xol xam na ko yéene noonu rek la tudd mooy ki nar dara di ko def yaa ngi tëdd daal régler sa montre waxtu woo xam ne xam nga ne waxtu bu jotee moom muy waxtu xëdd jot na nga jóg di xëdd moo xam da ngay naan ndox moo xam na ngay def ni ñeen ñuy def waaye lu ci mën a xew ala kulli xaal loola mooy mooy yéene ja ginnaaw weer wi dugg na daal nga fas nga yéene woor weeru koor wii te bis bu ne nga def luy wane ne yaa nga ca loolu moom doy na sëkk waaw yeneen yi ci des moom defe naa eh, dafay laaj dafay laaj li ñu wax samsara wala ak simsaar muy intermédiaire daal ñi nga xam ne dañuy. waaw baax na rek danañ ci ñëw <laughs> am na keneen kuy laaj itam at yar ay mbaam xuux ngir di ko jaay. Euh, mbokk mi dafay wax ne lislaam dafay digle liggéey ndax digle gi mu digle liggéey jigéen ci la bokk. ak itam ndax li nga xam ne moom leen gis léegi ci suñ société yi jigéen di xëy di liggéey comme góor nga xam ne ci subateel lay xëy ba ngoon muy doog a desuwaat ndax looloo tam dana dagan ci wala day wuteeg li yàlla naan wa qarna fi buyutikunna maanaam sax leen ci seeni kër yéen jigéen ñi euh, <coughs> waaw kon ñu simsaar buñ ko waxee mooy ay nit ñoo xam ne dañoo nekk ci biir marché bi te ñoom amuñu marchandise amuñu palaas seen liggéey daal mooy ku dugg ñi daw daje yow di la laaj loo bëgg soo ne nangam laa bëgg ñu yëkkati prix ba daal di dem ci bitig ne la am naa nangam nga ñëw bitig ba joxe leen ko lu yées ñu joxe la ko lu gën a cher daal di cay am dara loolu dafa xaraam loolu dafa xaraam ndax lor la ci kii kii ñëw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam daf ne bàyyi leen jaami yàlla yi kenn ku ne jariñu ci sa moroom maanaam kee la muy jaayee ci bitig ba nga xam ne mille francs lay jar bàyyi ko moom mi jóge ci bitti mu ñëw jënde ko mille francs moo gën yow nga dugg ci diggante bi ñëw jaayee ko ko mille deux cents ba noppi borom bitig bi jox la marchandise mi nga ñëw dindi deux cents yi daal di koy jox marchandise am mu dem loolu loolu dafa xaraam euh, yar ay mbaam xuux di ko jaay defe naa bi mu tuddee masala bi ni ma déggee jotaay bi yëngu mel na ne ñëpp xam nañ ne loolu loolu daganut ndax léeg-léeg danaa di wax ne li daganut léeg-léeg xam ko sax léeg-léeg du jaar dem ci téere yi maanaam fitrab doomu aadama ci boppam day am yoo xam ne day dem ba du ko nangu jullit bi fitraam day dem ba du ko nangu nee naa la mala yi sax am nañ lu mel noonu muus mi bu nekkoon ci sa wet ngay lekk boo dindee dara sànni ko foofu mu taxaw la koy lekke waaye bu ko këfee bu dee moo ko këfee ci ndab li moom doo ko jot day daal di daw lu tax parce que am na fitra bu ne ci moom boo xam ne mi ngi am yëg-yëgum ne lii nga ko sànnil sa bopp moom loolu mel na ne dagan na waaye lim këf nag loolu moom doo ko gaaw a jot kon masala bi mel na ne loolu moo moo ci feeñ bi mu tuddee mbaam xuux ak di ko yar di jaay rek jataay bépp ànd nañ yëngu kon loolu moom dafa alal ju xaraam loo xam ne dafa xaraama jëfandikoo ci ëpp jullit kooku jullit bi du ko jaay mënu koo lekk mënu koo jaay mënu koo jëfandikoo ci genn anam liggéeyub jigéen jigéen dana liggéey waaye nag comme góor déedéet nag du comme góor maanaam dafa am dafa am nu muy liggéeye am liggéey yoo xam ne ñoo gën ci moom nu muy liggéeye mooy sàmmoonteeg boppam ci wàllu colom ak ci wàllu fa muy liggéeye feeñal taar bu mu ci am wéet ak jaambur bu góor bu mu ci am su fekkee boroom njaboot la it gënul ci jigéen nag mu fàddu bisub lëm bàyyi njabootam ñu nekk ci yeneen nga xam ne ci suba la fay jóge ba guddi mu delsi kooku absence bu yaatu boobu faw mu am jeexit nag faaw mu am jeexit ci njabootam bi loolu bare rek ci lañ gis ne yar bi ci njaboot gi lu bari dafa soppiku ndax ay nit ngay jël bàyyi leen fi ñoo xam ne ay jànq nga leen tudde wala tur wa leen mën a jox ñooñu mën ngaa daje ku baax koo xam ne dana jubbanti sa njaboot waaye mën ngaa daje koo xam ne yeneen yi jikko la yor ñëw dugal ko sa kër te fekk loolee nga tudde ab liggéey moo la ko teg moo tax jigéen dafa am responsabilité bu mag ci biir këram boo xam ne saa bu wanee gannaaw këram rek responsabilité boobu day feeñ day feeñ bu baax a baax a baax day feeñ ci njabootam day feeñ ci kër gi kon jigéen ji dana liggéey waaye am na liggéey yu gën moom bal am na liggéey yoo xam ne dafa war ci moom sax dafa war a am lu mel ni suñ hôpitaux yii fépp foo xam ne góor a nga fa taxaw di faj war naa am lu mel noonu loo xam ne jigéen a fa taxaw di faj ndax ci biir la ñuy mën a demee ba jigéen ñi di faj jigéen ñi góor ñi di faj góor ñi te loolu mooy li jaadu moo war a nekk xam ngeen ni góor gu taxaw di rew li jigéen joo xam ne jàmbur la kooku musiba la kon jigéen ñi dañoo war a jàng dañoo war a man loolu lu jëm ci liggéey ñaw ak liggéey kër ak yu mel noonu yooyu yëpp liggéey jigéen la dafa war a dem ba jigéen ji ñawlu ñi koy natt góor du taxaw di ko natt waaye jigéen moo koy natt ñawal ko kon daal jigéen moom dana liggéey waaye na sàmmoonteeg li nga xam ne loolu la ko lislaam sant mu bañ koo génn wallahu taala alam jazakumullah xeyran eh, kii dafay laaj àtteeb eh, taxe douane waaw eh, douane taxe yi nga xam ne moom la ñuy jël ci ñoom loolu ci wàllu économie ni mu tëddee boo xoolee ci téere yi fiq yi am na lu mu nuróol mooy ñi nga xam ne dañuy jëli ay marchandises yu génn jóge ca biti ñooñu dañoo gis ne toujours ñu am ñu am kàttan lañ kon ñooñu war naa am luy jóge ci ñoom di dellu ci askan wi loo xam ne tolloo wut ak ñi nga xam ne dañuy liggéey ci biir réew mi rek di yem foofu ginnaaw daal marchandise um jaamur ngay indi di ko dugal ci ci réew mi am na taxe boo xam ne da ko wara a fay loolu am na ci fiq waaye nag nañ ko rek ba moom doon lu yem loo xam ne lu lu jéggiwul dayoo la ba kay commerce du ca loru nag ndax jëli ba noppi ñëw ñi jël loo xam ne yow boo jaayoon li lépp doo doo doo mën a sotti doo ci am bénéfice bi nga doon wuti su boobaa liggéey ba dootul tudd ab liggéey moo tax lañ cay jël war nañ koo xayma ba mu doon loo xam ne du lor nit ñàkk xayma googi mu doon lu yem mën naa dem ba dugal nit ñi ci ay tappale ak ci pexe ndax jël marchandise moo xam ne la nga ko jënde bi nga ñëwee li nga déclaré bokkul ak moom lu mel noonu moo koy indi su fekkoon ne dafa doon lu woyof luñ teg loo xam ne kii jaralu ko def yenn pexe su dikkee ku dëggu lay doon li ci xew lépp dana ko wax fay duwaanam mu génn mu jeex dem jàmmale bay ñiy jël seen àq delloo ko ci réew mi ñoom itam su ko defee euh, mbir mi lépp tegu ci yoon doonut loo xam ne daal charia da koy tere waaye nag nañ ko régler mu doon loo xam ne lu lu tegu ci yoon la lu jub la Euh, wallahu taala alam jazakumullahu xeyran kii dafay laaj koo xam ne dafa gént fekk dafa julli dafay dafa woor ba noppi gént ba gis euh, ndox ma ni ndax loolu dana jeexital ci koor gi wala déet euh, ki woor gént am lu génn ci moom kooku yàqul kooram jotiwul dara bu fekkee luy waral sangu la daal day sangu moom balaa julli mais nag yàqul dara ci kooram su fekkoon ne même ci bëccëgu weeru koor wi même bu doon ci bëccëg bi wàññiwu ko doon wallahu alam jazakumullahu xeyran kii eh, jigéen la nee na jigéen la joo xam ne dafa tàggoog borom këram ñu am doom joo xam ne am na at ak juróom benn weer léegi nag jëkkër ji dafa bëgg a wala boog jëkkëram woon dafa bëgg jël doom ji eh, ba sax boole ko maanaam kalaame ko ban war a dem tribunal muy laaj ndax dagan na moom mu jël avocat pour euh, doom ji des ak moom ànd ak nag moom mi ngi yor doom ji ni mu ko war a yore. ala kulli xaal masala la boo xam ne masalam masalam qadaa la même bu doon ci lislaam loolu du ab mufti moo ciy àtte kiy ubbee ci ay masala bokkul ak kuy àtte ab diggante loolu yoon moo ciy àtte même bu doon ci lislaam jugement lay nekk waaye du nekk ifta xam nga ne qada ak fatwa bokkuñu mufti bi day ñëw toog ñu koy laaj ci diine muy ton waaye nag problème yi ñu war a régler nag nga xam ne kattan pouvoir moo ko mën a régler su boobaa ci qaadi la ñuy dem muy attekat ba moom mooy atte ne lii nii la am na yoonam yi muy jaar ba ne xale bi fii lañ ko war a bàyyi. ginnaaw ñoom nag xas nañ dem ba ci yoon te question ci lim jëm mooy ndax daga na muy jël avocat wala mu ñàkk ko jël ok dagan na mu jël ko fee ginnaaw yoon te avocat li muy jariñ mooy layal la xëy na yow mën ngaa xam say lay waaye mënoo taxaw wax ko ci kanam nit ñi te moom mën naa taxaw waxal la ko ah loola kay su boobaa day jaaru dara nekku ci insha allah jazakumullahu xayran kii nee na dafa associé ak keneen ci benn mbir benn projet boo xam ne ñoo ñoo koy liggéey euh, la ca génne ci bénéfice ñu séddoo ko waaye nee na kooku nga xam ne moom la associé moom banque moo koy lebal wala ci banque la jële alal euh, ndax loolu ku mel noonu dagan na mu associé ak moom wala déet ala kulli xaal ki muy jëflenteel day xool li muy jëflenteeg moom ndax loola lu dagan la walla lu daganut la su fekkee daal seen seen société boobu ñu nekk ñoom ñaar li ci nekk lépp lu dagan la te nañuy jëflente ñoom lu dagan la la waajee defal boppam feneen kooka mbiram la ndax bul fàtte mukk ne dagan na ab yéefar ci boppam ngeen associé ànd di liggéey yéen ñaar te doo ko laaj la ngay fàggu foo koy fàggoog la ngay dund ca sa kër noo koy dundee koy jëlee alal yooyu te yoon nekku ci waaye li ngeen di dund daal na tegu ci règlement yoo xam ne moom yu dagan la wallahu alam jazakumullahu xayran eh, kii moom dafay laaj laaj bu xaw a xoro mu nee na dafa sedd ne daal jullit ñi buñ leen comparé ak yéefar yi ci fi fi toll nii ci àdduna leen gis ne jullit ñi ñoom ñoo gën a néew doole ñoo gën a dellu ginnaaw yéefar yi ñoo gën a avancé ñoo gën a jëm kanam ci wàllu koom-koom ca nee jullit ñi ñoom nee nañ ñoo nekk ci diine ñoo nekk ñoo nekk ñoo yore tam méthode bi gën léegi loolu nu koy mën a expliquer ba mu leer. dafa am ñaari mbir yoo xam ne moom la ñu tuddee développement ak jëm kanam benn bi day dellu ci alali àdduna beneen bi day dellu ci wàllu jikko. Euh, la chaque année bu dee ci wàllu jikko ki nga xam ne danga wax ne dafa développé ba àdduna ci loxoom la nekk. te tey fi mu toll ci jikko mooy ñaari góor mën a taxaw ñi maye leen ñu ne kenn ki mooy jëkkër ji kii des mooy jabar ji su fekkee foofa lañ toll foofu nga xam ne mala yi ñoom àggaguñ fi ci wàcc gisagu leen benn mala bu góor boo xam ne yu day séeg beneen bu góor foofu moom àggaguñ mala mala wàccagul ba àgg foofu su fekkee ñi avancé ñoom nga xam ne ñoo jaaxal nit ñi ci wàllu avancement ci wàllu àdduna ñoom ñoo toll foofu ci wàllu jikko kon kooku jaaduwul jullit yi ñu di leen yéem ci wet mu des nag wàllu tabax àdduna ak defar ko kooku jullit yi dañ fee nasax nasax goo xam ne lislaam santu leen ko ñoo ko defal seen bopp lislaam dana jàngi leen xarañe leen am leen jom liggéey leen bu leen yàq ñooña loolu lañ jël di ko def ñoom moo tax ñu toll fi ñu toll xam nga suuf si ak li nekk ci suuf si ci yi ñuy liggéeye kenn moomu ko maanaam mi ngi mel ne garab gu taxaw daal ku gësam ku nekk du ne bu ab jullit gësamee doom bi wadd waaye bu yéefar gësëmee doom bi du wadd de garab gi kay doom bi ñor na ku gësam moom mu wadd léegi su jullit yi toogee na croché seeni loxo nanguwuñoo dem liggéeyi ñeneen ñi dem liggéey liggéeyi def seeni gëstu def seeni recherche adduna bi laa chaque ne su boobaa ci seeni loxo lay tege waaye su boobaa nag ñi yëg ne ñoom itam dañoo defut li leen seen diine sant maanaam dañoo sàggan waaye nag bu mu tax mukkit nga ne man jommi naa ndax ñii moom seen lépp baax na te man sama dara baaxu déedéet jikko moom ba léegi dañoo war a dellusiwaat julli di jàngal leen ko man dama leen di wax ne ci wàllu finance niñ demee ba am problème crise mondiale bi am ci wàllu finance nga xam ñoom ñépp dem nañ ba nangu ne lislaam ni mu tëre moo baax dama ne crise bi am ci wàllu jikko yi sooy boo ñu nangu ko xam ne lislaam ni mu tëre moo baax yeneen yi ci des noonu la demee lislaam mooy diine ji war defar doomu aadama ndax ki ki ki bind doomu aadama moo ko wàccee ne lii moo koy defar loo ko gën a sori da gën a dëng bare alale àdduna taxuta am développement naam jazakumullahu xeyran kii mbokk la mu ne wax Adama Tine dafa waxoon ne dafa soxla woo kii bi ay tur rek jëlaatal ah. ah jot na de ah. jot na jëlal kenn kooku rek kon ñu jël kenn rek bismillah aleykum salaam asalaamaaleykum wala dañ ñaan cheikh ya subhanahu wa ta'ala sàmm ko yokk xam-xam bi léegi man dama leerlu ban différence moo am ci ki nga xamante ne dafa bëgg financement mu dem ci banque classique yi ñoom ñu dañuy liggéey ak sept pour cent léegi nga bàyyi leen foofu nga dem ci banque islamique yi ñoom ñu ne ñun duñ la jox xaalis wante da ngay dem ci grossiste bi nga bi nga xam nga waxtaan ak moom soo waxtaan ak moom mu defal la reçu soo ñëwee si ñun ñu teg ci jaay la produit léegi dem nga ci grossiste bi grossiste bi waxtaan ak moom moom mu jël bénéfice parce que la chaque grossiste day jaay puram ko puram dara Mm-hmm. góor si su jot na bénéfice am nga ñëw ci finance islamique bi moom it mu ñëw teg ci dara soxla kaa jaay c'est banque classique bi nga demoon dafa moon teg 7 pour cent ci nga ñëw mu teg ci dara léegi ma may laaj foofu lan moo fay différence bi dama ci am jafe-jafe salaamaaleykum wa rahmatullah teg dara moom saa bu tuddee intérêt rek riba lay doon moo xam banque islamique wala leneen waaye nag am na teg dara boo xam ne bénéfice la tudd su fekkee ne da ñëw ci banque islamique seen seen façon finance boobu ngay junj damaa xamul ndax yow ña nga gis dañ koy tëree ni ko lislaam wax wala dañ caa dugal seen yëfi bopp waaye ñoom ni ñuy jëfandikoo bu doon da ngaa bëgg a jënd oto tey bu ñëwee ci banque classique mu lebal la trois millions ñoom dañ cay teg sept xaalis lañ la jox teg ci xaalis kooku moom riba la boo ñëwoon ci banque islamique bi nga xam ne day doxee ni lislaam wax laa wax de xaw bi nga gis moom boo ñëwee ne ko day man damay jënd oto boo xam ne trois millions lay jar dañ lay wax ne nun de mën nañ koo jënd jaayaat la ko nga ne kay ñu dem ci boroom ka koy jaayee trois millions jënd ko ci moom moo xam dañ koy jënd ci oto ba wala ci ay facture lañ koy def lu mën a xew ñoom danañ ko fay trois millions après ñu wëlbatiku nag yow waxaale yow ne la dañ ciy teg nangam loole ñu ciy teg ñoom bénéfice la la tudd waaye tuddatul foofu Euh, intérêt moo tax wa axalla allahu albaya wa xarama riba moo tax foofu jaay la ñuy jëfandikoo ak jënd waaye lebaluñ la yow ab xaalis su boobaa ñoom dañoo jënd oto ba moom ko wëlbatiku nag lebal la oto boobu ci loo xam ne ëpp na lañ ko jënde woon ndax képp kuy jënd ko jaay ku mën a doon la ngay jënd faaw nga jaay lu ko ëpp la nga jaay bu ëpp la nga jënde kon bu soobee yàlla léegi nga tëj sam jaay dem seet leneen léeg-léeg nag am loo xam ne dañ koy tudde finance islamique wala banque islamique fekk am na ca biir nag ay yëf yoo xam ne boo ko seetee ba ca biir da ngay gis ne eh, ay ay ay mbir am na ci yoo xam ne day wóotoo ak l'islam moo tax fépp fu banque islamique am maa ngi koy wax ay mbokk fii ci benn journée bu ñu doon def ci finance islamique mooy li ñu tudde ar riqaba charia dafa war a am war naa am ab bureau boo xam ne li ñuy wax charia board dafa war a am boo xam ne ay boromi xam-xami yoo xam ne opération bu ñuy def bu nekk dañ koy xool ba ne bii nangu na ko door leen koo jox ñu def ko su loolu amul rek ñoom danañ fétal comme que liñ jàng mooy système banque classique faw ñu fétal am opération yi ñuy def yoo xam ne bañ ko ciy dugal sax ñoom duñ ko yëg te fekk finance islamique lañ ko tuddee moo tax euh, loolu léeg-léeg mu am wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain jazakumullahu xeyran cheikhna kon euh, fii la ñuy yemale waxtaan wi ba beneen yoon di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu nangul ñu ñun ñëpp yi nga xam ne ñu moom lañ ci toog yàlla boole ko ci jotaay yi kon ñu daal di waajal li ci des muy waxtu tisbaar yi wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain